mu yar leen mu yar leen ci diine mu amoon ci ay ndaw ñoo xam ni ñu ngi yaru ci keppaaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndaw ñoo xam ni yonent bi am na fu mu leen fekkoon ci ay pas-pas yu yàqu ci ay jikko yu yàqu mu fexe ba dindi jikko yooyu ak pas-pas yu bon yooyu dugal ci ngëm ak leer te ndaw ñooñu ñu xam bu baax li ñu yenu message bi ñu yoru ban la ak message boobu lan lay xaar ci ñoom ak fan lañ fan lañ ko war a yóbbu ci góor ak jigéen nag xam nga ne léeg-léeg bu ñuy wax ndaw ci lislaam li gën a bari day mel ne jigéen ñi bokkuñ ci fekk ci lañu bokk kon jàpp naa ne lislaam moom ñàkkul ay royuwaay muy ci ndaw muy ci mag muy ci góor muy ci jigéen dajee fees dell mais nag lu gën a bari doo doo leen dégg ñu ne lislaam ak mag ñi bariwul mais lislaam ak ndaw ñi pourquoi parce que ndaw ñi yonent bi dafa wax ci ñoom lu bari te ñoom dañoo nekk benn élément boo xam ne soo leen defaree rek daanaka defar nga nation kon wax dëgg yàlla tey ndaw ñi soxla nañu orientation l'islam jàngaleenu l'islam pour ñu xam dëgg dëgg dëgg ñoom aussi lan mooy seen rôle ci adduna bi tey ndax xam ngeen ne ndaw ñuy gis tey xam naa moom mi sax dina ci gën a dugg rawatina ndaw Sénégal tey vraiment ñoom li ñuy tiitaroo ak li ñuy bàkkoo ak li ñuy ndamoo loolu daanaka lu dara kon incha allah ñu war a dalal al Oustaz Saïd li ngeen xam ko dëgg yàlla mu yàgg nekk ci terrain bi di liggéey bokk ñi nga xam ne yàlla baax ni leen yore école di yàlla ay doomu jullit di leen jàngal aussi mu bokk ci ñi nga xam ne ñu ngi dugg ci média yi di ci joxe seen participation ci wàllu lislaam rawatina télévision boobu di Saint-Louis TSL bokk ci ñi nga xam ne wax dëgg yàlla ñu ngi fay def liggéey yu am solo kon defe naa ne du gan muy dooru ñëw fii su defee nag comme ndaw la comme ñun wax dëgg yàlla dina baax lool la muy wax ñu déglu ko ñu yëg bu baax a baax ne kon ndekete ñun ndaw ñi lislaam mu ngi xaar ci ñun lu réere par rapport ak tey li nga xam ne moom lañ ko war a jox ak tey fi ñu toll kon du ma guddal incha allah dama koy bàyyi mu dugg ak ñun li nga xam ne moo di thème bi ñuy xaar ci moom ñaan yàlla yàlla defal ko fasaaxa ba incha allah li muy wax mu doon loo xam ni te ñu jariñ bi ñun incha allah bu ñu fi jógee ëllëg xam fan la ñu war a teg sunu tànk aussi ñu xam dëgg dëgg dëgg ñun ndaw ñi dund bi ñu nekk tey ban rôle lañ ci am ci war ko changer jëlee ko ci système bu bon yóbbu ko ci système bu baax jëlee ko ci ndëngate yóbbu ko ci njub waaye jëlee ko ci dellu ginnaaw yóbbu ko ci jëm kanam comme na ko saxaaba bi waxee ba ko rustum laajee lu tax ngeen ñëw mu ne ko ñun suñu message dafa leer yàlla daf ñoo yónni daf ñoo yebal pour ñu génnee nit ñi ci jaamu jaam. yóbbu leen ci jaamu yàlla génne nit ñi ci xat-xatu àdduna yóbbu leen ci yaatub lislaam génne nit ñi ci jëngu diine yi fi nekk ak régime yu bon yi fi nekk yóbbu leen ci mandatab lislaam kon daanaka mën nga ne loolu boo ko jàngee ci séer rek moom mooy global ci lislaam kon Oustaz Saïd incha allah maa ngi koy bàyyi mu war a dikk ak ñoom ci mawdu bi la Oustaz alkarim maak
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وعد أمانة البيان ونسها الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñu ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu ñu ngi leen di ziyaara di leen baalu àq di leen baalu àq di ñaan buur yàlla subhanahu wa taala yal na yàlla boole jéggal di am mbégte bu baax a baax dajeeg yéen ci néegu yàlla bu màgg bi fekk fi sunu kilifa yi ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu nangul nu guddi gi fekkoon ne guddi gi yëpp tey nii la jàmm am ay nit tey dagg nañ ay kilomètre ay coono ay ay ay fekk fekk dara fekk dara fekk dara ay nit tey daje nañ ci ay barab fekk dara lii rek mooy mbir mi fekk delluwaatuñ ci lii dañuy sonn rek Sénégal du baax xam nga Cheikh Khalifa dafa indi fii mu ne lii xaw ma diw la placenta nit ñaa ngi naan li ko ñu ñaa ngi gën a def lu ko gën a garaaw yi jël kaamil di ko dugal ci duus ak yeneen ak yeneen ak yeneen yeneen ci gën a gën ngeen xam ngeen ci lu bare bare bare loolu nag fekk détails yu mel nii du am ci musiba yooyu rek la ñuy nekk réew mi ci yàqute rek la ñuy nekk ci dundal ay bidaa di màggal ay shirk di di di di di mu ngoog programme bi tey boo laajoon ñi ko organiser lu tax ngeen def ko ñu ne ñun de dañ koy def ngir téye ndaw yi bu ñu baali wala téye ndaw yi bu ñu mais lu tax ndaw yi di baali parce que amuñu conscience islamique loolu kese la buñ gëmoon ne yàlla subhanahu wa taala mooy seen borom yonentu yàlla muhammad mooy seen yonent kon danañ xam ne 24 décembre ak 31 décembre suñu yoon nekku ci kon danañ xam ne ab julit 31 décembre yoonam nekku ci te yonent bi buñ ko laajee lan mooy baaxal nit mu ne min husni islaamil mar'i tarkuhu ma la yaani nit lu yoolam nekkul mu ne bu mu ci dugg lan mooy sunu diggante ak ak ak feetu 31 décembre lan pourtant xew-xew yi ñu ciy wax ci 24 ak 31 xew-xew yi ñu ciy wax kuñ ko waxoon baayam doo feetu lan mooy indi 24 dañ ne yàlla dafa am doom kuñ ne woon sa papa dafa am doom koñ mbële te amul fa jabar ndax di nga lekk ci laax yi benn waaye bu la fekkoon nga taxaw mu ne la eh yow est-ce que yëg nga ne sa papa mooy ngénte fee te yow xam nga ne amoo fa jabar te ngandum nag la rey di nga lekk ci ci nag bi day xeex ak moom buñ nañ nañu yéegal niveau bi boobu dafa gàtt buñ la fekkoon nga doog ñu ne la yow ban tarixa nga bokk nga wax tarixa bi ñu ne la seen xalifa bi mooy ngénte fii te amu fa jabar pourtant yàlla moo gën a màgg xalifa bi te loolu lañ ko wax te ñun rek ñoo ñun rek ñoo yënguwul ah yàlla mu ne yakaadu samawaatu yatafattarna wala loolu daaye wa tanshaqul ard wa taxirrul jibaal lu tax limaza an daaw lirrahmani walada wa ma yanbagi lirrahmani an yattaxisa walada in kullu man fi samawati wal ard illa aati rrahman asamaan sax def na réaction suuf def réaction montagne yi xataa jinne yi jinne yaa nga ca ci kaw asamaan di yuuxu naan wa annahu taala jaddu rabbina mattaxasa saahibatan xataa jinne waaw ñun rek ñoo des ñun julliti ñun julliti te alxuraan mooy wax ak ñu léegi nag ku dégg loolu ba pare ne da ngay feetu wala da ngay ngénte doomu yàlla di màggal rendi ay ginaar rek tey di nga fekk ay jullit yu alku ci seeni biir kër ñu toog te tiim boolu ginaar di lekk guddi tey gi ku rendi ginaar da nga ko ëpp doole rek te boo ko lekkee doo suur ndax dalay fanaane rëbb ba bët set foo ñu delloo suñu xel xam ne jotaay yi ñoo baaxaloon saxaaba yi jotaay yi ñoo baaxaloon saxaaba yi wallahi alazim yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu nee cëpp Medine lu mu njëkk a def tabax jàkk jàkk yooyu la defaree Aboubacar Omar Ousmane Ali saxaaba yi góor ak jigéen yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam mi ngi leen defaree ci biir jàkk sunu bëggee Sénégal gi baax dañuy defaraat jàkka yi rek delloowaat ndaw yi ci biir jàkka yi yar leen kon tomb bi mooy dawru sabab fi islahil mujtama lan mooy rôlu ndaw yi góor ak jigéen pour defar société bi lan mooy rôlu ndaw yi yu góor ak yu jigéen pour defar société bi lan mooy lan mooy seen rôle comme ni ngeen ko jàngee comme ni ngeen ko xamee alshabab fi ay umma min al umam hum al umud ndaw yi ci société bu mu mën a doon xeet wu mën a nekk ndaw yi ñooy pii ndaw yi ñooy pii lan moo tax tey yahud yeeg nasaraan yi di yàq ndawu lislaam yi lu tax sànq grand xalifa mu ngi koy wax nee na Europe dañoo amatul population parce que dañoo naan yi comprimé comme seen musiba yi li ñu dal moo leen dal parce que bu leen yaa yenn saa yi buñ nee Europe ñoom tam dañoo am nangam ak nangam nit ñu xeexee lan leen xeexee parce que dafa am ci àddina bi benn kuréel boo xam ne moom dafa bëgg def dafa bëgg a jàpp àddina bi ci ay loxoom bu àdduna bi yëngatu léegi nag xeex boobu muy xeex nit ñi ñu bëri dañ yaakaar ne jullit yi kese lañ ko xeex déedéet hatta Europe li dal jullit yi moo leen dal dañ leen gëmloo woon ay affaire gëmloo leen gëmloo leen gëmloo leen ba tey loolu këpp ci seen kaw comme xam gis nañ loolu nag ñu bugguñu ko indi yenn ñi ko ñun tamit gis nga commencé génne suñu jigéen yi doo fekk te benn jigéen bu toog di sëy koo wax mu ne la damay yëngatu xale yu góor yi ñu ko la gis la commencé leen gëmloo ubbil leen géej gi xam ngeen ne bu gaay bu leen neexoon fii bu bu buun rek buun bu tubaab yi bëggoon ngeen wañ a génn buun du ngeen génn fii da ngeen di xëy soo bëgg a liggéey du ngeen génn waxuma laak nag naan da ngeen dem géej di dem ay Espagne ñoom ñoo ubbi buntu yooyu yombal ko ba pare wane yoon yi mais bu bu leen neexoon kenn du bougé fii ma ne kaaru tata baa ngi nii kaaru Dakar dem dikk ku amul paas doo ci yéeg ku ci yéeg dikk nga jëm yendu ji te yéen a ngi nii yéen ak moom yéen a dëkk fii lay départ jëm Dakar jéemala pour la ñetti yoon ñaar nga xool quatrième jour bi conk ngay añee ji kon yu bari dafa nekk ci tey pour yàq ndaw yi parce que xam nañ ndaw mooy lañ ndeysaan yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam keroog ba ko Jibril feeñoo ci xaaru Hira premier jour mu yuuxu naan zammiluu nii mu daw dem ci Khadija Khadija yóbbu ko ci Waraqa xam ngeen Waraqa lan la doon wax yaa laytanii kuntu fiha jazaa aka neexoon ma nekk ndaw aka neexoon ma nekk ndaw tey aka neexoon ma nekk ndaw kon bis bu ñu lay génnee dinaa taxaw sawet ñun ne dañ may génne mu ne ko lii nga bëgg a wax su ku ko mos a wax rek génne nañ ko waaye nag aka neexoon ma nekk ndaw su ma nekkoon ndaw dinaa taxaw sa wet kooku lan la doon mébét mooy mu nekk ndaw ndaw day passé yàlla mësta yónni yonent lu dul mu nekk ndaw samina fatan yazkuruhum yuqaalu lahu ibrahim dégg nañ benn ndaw benn jeune ci biir quartier bi ci biir dëkk bi muy attaqué sunu yàlla yi turam mooy ibrahim ndaw la yaxya bi ko ki yàlla di yónni xale bu ndaw la bi ko yàlla naan xusil kitaaba bi quwwa isa bi ko yàlla di yónni mu ngi ci mu ngi ci berso bi saa wax na aaye bi wa ataynahu lhukma sabiya yonti yàlla muhammad bi ko yàlla di yónni 40 ans la am ñu ñëw ci ginnaaw diine bi yëpp moo leen mag moom ak abubakar moom ak umar moom ak usmaan moom ak ali moom ak ñeneen ñëpp 40 ans la am moo tax ñu ne ndaw mu ngi tàmbalee 18 ans yem 40 ans loolu mooy ndaw tey boo doon xool loolu source bi ci Sénégal fan lañ leen jëmee nawetaan làmb mbokk bi wax na simb ay caaxaan kese foo tey bu yàlla nattul woon Tuubaa mu am la ilaha illallah kon du ngeen dégg di kon du ngeen dégg de te xoolal Sénégal fu mu toll ci crise chaque jour nga dégg ñu naan dëkk bi dafa dëgër dëkk bi neexul mais xoola fo bi dara wàññeeku wut ñooñu di fo fu ñu jóge fu ñu jëlee lu ñu fooyee xoola danse ni xoola sàngara si léegi nu mu bare bu ñu duggee ci yàqu tege di ngeen ko xam kon ndaw yooyu nga xam ne ñoom la lislaam soxla ndeysaan yonent bi dana uusikum fi sabaabi xayran maa leen di dénk ndaw yu yiw bi ma yàlla yónnee mag ñi dañ maa weddi ndaw yi ñoo taxawoon mbokk yi diine lislaam du diiney màgget yàgg naa ko wax ay musoon naa ko wax ci benn jàkk ñu mere ma ma waxaat ko fii diine lislaam du diine màgget de ku bàyyi ba màgget nga gàddu sa kurus dem jàkk ba doo fa def lu dag lu dagan doo fa def lu baax islaam diiney xale la góor ak jigéen nag ku màgget bokkatoo ci islaam ay xale ñoo ko samp ñoo ci tuur seen deret góor ak jigéen ba diine bi taxaw moo tax du diiney màgget ku bàyyi ba màgget di ci doog a dugg doo ci def lu lu baax est-ce que booy julli sax mënatoo taxaw gis nga ñaata yoon ngay dugg ñaa imam del gàttal tuuti tànk yi baaxatul tànk yi baaxatul dootoo mun taxaw rukkoo yi du baax sujjóot yi du baax dara du baax parce que da nga màgget moo tax loolu la noon yi xam pour di yàq fondement boobu pied boobu nga xam ne moom moo war a samp pour l'islam taxaw mu ngoog su ko defee force bi ñoom ñoo ko yor ñoo yor doole ji ñoo yor kàttan ji ñoom ñoo mën a joxe loolu la noonu yàlla yi xam moo tax ñu taxaw ci yàq ndaw yi di leen dévier di leen sànni ci ay mbir yoo xamante ne amul benn njëriñ yenn saa yi ma wax waa stade bi comme ñun fa lañ dëkk fa lañ yàlla nattoo yenn saa yi bu ñuy julli sax duñ dégg ci ay yuuxoog ay lacrymogène ak xeex yenn saa yi dañuy julli gee wallahi duñu julli ndax ndax lacrymogène wala ñu daw dugg ci biir jumaa ji dañuy mujj dàgg julli gi yenn saa yi waaw ah da nga mën a julli jëmi ci biir ak lépp ak gars yi di leen dàq ñu dugg ci ab la ñuy sànnante ay xeer lacrymogène bi ci biir ñëpp dugg bu xante bi wala ñuy gaañ nit ñi da ngay dañuy taxaw ñenn ñi dañuy dugg di sàcc. di jël bagage yi nit ñi jumaa yeeg jàkk ji mu ngi mel ne fii ak bunt bi lii tawi bi moo dox seen diggante gës dëkk ci stade bi xoola caaxaan yooyu te tey Sénégal bu ñu bëggoon mu baax rek équipe nawetaan yi mënoon na ko baaxal bu leen dagaloon ku nekk 4 milo 4 kilomètres carré ci àll bi ñu bay ko ba mu jeex tàkk wala écurie mbër yi rek baaxaloon na Sénégal écurie bu nekk dañ ko jox 4 kilomètres carré mu bay ko ñaata écurie mbër ngeen am ku nekk bu bayee 4 kilomètres carré ñi bay ceeb ñi bay dugub ñi bay ñi bay ñi bay ñi bay ñi bay wala ñu jox ko footballeur yi équipe bu nawetaan yi nawetaan ban njëriñ la am waa ji day football année nawetaan bi ba mu jeex ñaata mois la ëpp na 3 mois parce que ba léegi ñu ngi football léegi nekk nawetaan ñun dañ leen di taalal ay làmp su année bi yëpp jeexee ñu jox la lan coupe coupe bi lan la or la coupe bi or la coupe bi bronze la xaalis la coupe bi xam nga lan la benn weñ weñ weñ weñ weñ wu ñuul ko coupe bi ñu ñu ñu kii ko tent ko ñu jox la ko waa xoolal un an ngay nekk ci àll bi di bërëx bërëx yi ñu jox la lii te nawetaan bu njëkk ba bu école bi jeexee dañ la woon nga dem naweti ji nga dem dimbali sa baay yaa ngi Dakar di jàng nga dem dimbali sa baay ci tool yi wala sa sa benn mbokk ci tool yi léegi yow imaginel nawet bi gars yi dañuy yendoo dañuy nekk di football di entraîner guddi di daw ñaata jeune lañ léegi loolu ak jël une heure di bay ban ban différence la du sport rek nga bëgg defar sa yaram te mu nga jël une heure bi wallahi bu nawet bi jeexee nga jëriñu mais nawetaan bu jeexee doo jëriñu loo am benn coupe ak 2 millions 2 millions divisé par 50 mille personnes 2 millions bi nga gagné ci coupe bi nañ ko diviser équipe bu nawetaan bi koñ bi ñu diviser ko équipe bi dirigeant yi waa koñ bi lépp ku nekk ñaar la am léegi yow ana ana ana sa nawet sa nawetaan ban njëriñ la am su fekkoon ne da ngaa dem wallahi dem ñu daggal la benn tool bu toll ne jumaa ji yow kenn nga nawet ci ba mu jeex est-ce que doo jëriñu ah voilà mais gis nga da ngeen defee ne nawetaan nit ñi ñoo ko kereel seen bopp ñun ñoo ko keree déedéet tubaab yi ñoo ñu koy indil pour nax nu bu nu liggéey bu nu dem bu nu avancé nañ topp rek bis mu nekk di yalwaan di leen taalali loxo ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne yéen a ma gën a xam ne amaluñu benn njëriñ ci àdd ci Sénégal waaw wala Oscar jël doomu jullit yi di leen feccloo guddeeg bëccëg cheikh yi war a daan amirul muminin علي رضي الله عنه وارضاه قال انما اخاف عليكم اثنتين اتباع الهوى وطول العمل امام علي ne li ma ragal ci yéen mooy ñaari mbir bi ci njëkk mooy topp ba neex ak ay mébét ay projet yoo xam ne sama projet yi sama projet yi kañ lay pare projet yoo xam ne mu ngi ci këyit yaa ngi ko denc rek di mébét suma suma tukkee quoi sama rêve yëpp mooy man naaw quoi doo sax laaf doo naaw du béboo nga dox su ma naawee noo bàyyi leen ba dem ba ñëwaat te yoo xam nga ne doo dem te ngaa liggéey fii kon ah nag bopp loolu naka di ko nit di defe ci boppam toog rek naan xol amul problème toog toog du la yënti dara loolu moo ñu indil jafe-jafe mooy lan topp bànneex sa bànneexu bakkan ndaw yoo xam ne seeni bànneex lañ topp ak ay projet yu dul sotti jàngeen ci alxuraan yàlla mu ne fa amma man taxa wa asara alxayaata dunia yelma jàngeen ci alxuraan yàlla mu ne afara ayta man ittaxada ilahahu xoolal waa ji nga xam ne yàllaam mooy bànneexu bakkan bi bànneexu bakkanam mooy yàllaam lu bànneex bi bëgg rek loolu lay def moo tax imam ali mu ne li ma ragal ci yéen mooy topp bànneex am na benn waay bu alquran di rëbb naan masaluhu ka masalil kalbi in tahmilhu waajooju lan la def lan moo ko alak mooy topp bànneexam ay bi fa la tàmbalee ci kaw dafa topp bànneex moo tax yàlla alal ko alak ko làmmiñ bi génn mu mel ne xaj moo tax topp bànneex baaxul bëri na tey ndaw lu fi màtt loxo góor ak jigéen lan moo lan moo ko alak topp bànneexam ñaareel bi mooy topp ay mébét ay mébét mébét yu dul sotti mu ne amma ittibaa'ul hawa fa innahu yasuddu anil haqq topp bànneex li mu lay njëkk a baare di la yàqal mooy dootoo gis dëgg ah bis dinaa joxe misaal bu garaaw nag da ngeen ma baal de tey jii ci ñun am na ñoo xam ne lu tax mënuñu gis dëgg mooy seen bànneex rek lañ topp parce que seen bànneex fii la nekk fii fii la jëm ñu topp loolu soo waxee ñu ne oh non non non non lii laa gëm lii laa gëm bul discuter lii laa gëm waaw lii laa gëm lii laa bëgg bu kenn wax mais loolu du dëgg xam nga jullit lan ma war a nekk problème am mooy dëgg est-ce que dëgg la est-ce que lii mooy li war a nekk soo utiliser utiliser loolu nga dem mais bu fekkee yow sa bànneex rek lii la bànneex bi gëm lool la même da nga koy gis ci xale yu jigéen wala xale yu góor yi tey nga ñëw ne damay bëgg a takk benn soxna sa papa ne la ah nga ne non góor gi affaire bi kii nañ ko ba pare ah waaw commencé fas kanam nag di ñàngal waaw affaire bi rek kii nañ wax nañ ko ah yow kay kon ñëwoon di tàggoo da nga ñëw di di yëgle fekk da ngaa waroon ñëw diisoo si suura gis nga parce que léegi lu tax yow sa bànneex foofu la nekk moom nga gëm dootoo gis dëgg bi ku la ci bëgg a yedd wala mu bëgg la cee wax wala mu bëgg la cee génne non gisatoo dëgg yow lii rek waaw loolu musiba la mu ne beneen bi mooy fa amma tuulul amal fa innahu yunsil axira gis nga ay ëllëg dinaa lii ëllëg dinaa lii ëllëg dinaa def nangam nangam ak nangam xam nga lu muy def dafay génne allaaxira ci sa xol te ku allaaxira génn ci xolam dootul li dootul jaamu yàlla lan moo tax ñu ñëw fii ci biir jàkk ji toog fi mooy suñu xel dafa nekk ci allaaxira ñu xam ne lépp lu nit def lu dul lii ëllëg day perte da ngeen yaakaar ne yéen rek yéen a groupe boo tey tey groupe bi bëri na de waaye da ciy néew groupe bu fayeeku waaw Omar ibnu Xattaab dafa romb benn église làbbe bi jooy Omar taxaw jooy saxaaba yi mu àndaloon ne ko yow xanaa da nga dof da ngay jooy ci ab yéeféer mu ne déedéet jooy ma lool de ñu ne ko loo jooy mu ne sama xel dafa dem ci ab aaya ñu ne ban aaya la mu ne amilatun nasiba dafa sonn te du fayeeku sonn te du fayeeku loolu laay jooy kii daa sonn waaye du fayeeku tey am nañu sonn est-ce que dinañu fayeeku ndeysaan allahu akbar amilatun nasiba Sénégal dafa bëri ñuy sonn te duñu fayeeku sonn ba pare te li ñu li ñu sonn kenn du leen fay amilatun nasiba ci côté yëpp nag ba doon xool tey guddi gi nga dugg Dakar nga génn di dem di dem ba foo bëgg a dem di nga romb mbooloo yu bëri yu sonn te duñu fayeeku kon kuy sonn lu tax nga war a sonn pour yàlla fay la pour nga am tiyaaba pour nga am ngërëmal yàlla wa ajjaltu ilayka rabbi li torba yàlla damaa yàkkamte ñëw ci yow def say ndigal pour nga kontaan ci man ayyuhal aziz mbokk yi anna ragabati nafs wa amaliha la tantahi bëggi-bëggi baa neexi bakkan du jeex abadan suñuy bëgg-bëgg ak suñuy bànneex du jeex mukk waaye lu nu war a def mooy aar suñuy bëgg-bëgg ba yemale ko képp koo xam ne dafay topp ay bëgg-bëggam ak bànneexam daf koy dugal ci alkane da koy dugal ci ay yàqute ci ay mbon mbon looloo tax tey ay buntuy mbon mbon yoo xam ne kenn Sénégal li fi mbon kenn ay waame la kenn mënu ko nat kenn mënu la lii rek mooy bon non làmb ji rek moo bon déedéet kenn mënul yem foofu ku yoroon xalima di bind lii mbon tey lu ñëw pour yàq société bi pour yàq l'islam kenn bu ñu demee bay sàngara ñu koy jaay kopp kopp AZT sàngara kopp cent franc sàngara barki démb dama ko xam nga man gëmu dama ko man gëmuma ko de gëmuma ko woon barki démb dama romb gis waa ji natt ma taxaw xool ko bu baax ba xam ne kii day natt ma ne alhamdulilah léegi am naa ci preuve sangara cent franc loolu loolu doy na waar de ñuy jaay sàngara Sénégal ba koy natt cent franc waxuma ñu koy def ci ay mbuus tudde ko salañ salañ ay mbuus te xam ngeen société bi koy defar fu mu nekk tëngéej benn mbokk bu baax bu bëgg lislaam di dox di dox ba gis ko woo préfecture woo woo woo woo woo xam nga fu mu mujj ñu koy menace te mu woo autorité yi ne leen pour mu jóge fi ñu koy menace de mort pour mu noppi mu nga am na benn baar boo xam ne dañ ko tëjoon Pikine jouru tabaski lañ ko ubbi mu ngi tuddoon saf baar jouru tabaski bi passé dañ fa reyoon nit ñu tëj ko ay war na ay yàgg waaye ji dafa bàyyi ba tabaski mu mu tëj ko hmm? jërëjëf gis ngeen fekkoon na nit ñi dëggu nañ jullit yi dëggu nañ jullit yi gëm nañ yàlla bëgg nañ seen diine am na yoo xam ne Sénégal jeex na fi waaye sàngara si ñen ñoo koy naan jullit yi jullit yi ñoo koy naan ndeysaan allahu akbar mu ne topp bànneexu bakkan su ko nit defee da koy dugal ci ay mbonte ci ay yàqute ci ay junni junni léegi nag su ko defee mu baare ko ci dëgg mu daal di koy dugal ci géej goo xam ne daf ciy lap ci yàqute ci cànkute mu mujj a nekk moom waa jooju jaam di jaamu bànneexam ak bëgg-bëggam di jaamu yàqute mu mujj fu muy mujje mooy mu nekk kaafir ak yàqkat day weddi yàlla ba pare nekk yàqkat te yàlla waxoon na wala tufsidu fil ard baada islaah am na ñoo xam ne bu ñu la waxee ittaqillah axazatuhu al izza koo ne ragalal yàlla mu nganda ngandalu man nga daan ragalal yàlla yow man am na ñoo xam ne kenn ñi mu leen wax ragalal yàlla ñoo ne ci ndénkaane benn boroom xam-xam bu mag bu doon dénk njabootam mu ne in kuntum turidun an taqifu bi duni xawf wa hala amama al batil su fekkee da ngeen a bëgg a taxaw keng yeen ndaw yi ngeen sax dàkk ci kanamu mbon yàqute ngeen wa antu daafiu anil xaq ngeen di défendre dëgg ah na ngeen yëg ne kon ngeen xeex ak noonu boobu tudd seytaan ak ay pexeem ak ay mbokkam kon na ngeen fexe ngeen defar seen ruu yi bu fekkee ndaw yi dañu bëgg ñu taxaw ci kanamu yàqute kenn kenn du leen mënal dara comme ni ndaw yi taxawoon ci jamono yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam di dafa ànd dëgg ci jamono boo xam ne kenn ñemewul wax dëgg a ngi nii ñoom ñu taxaw parce que lu ko waraloon mooy dañoo defaroon seen ruu kon foog ñu defar suñu ruu yi te ruu yi lu koy defar mooy lii mooy lii mooy defar ruu góor ak jigéen mag ak ndaw mu ne ñu génne suñu bopp ci ay barab ñu tàmmal suñu bopp dund gu limité dund gu yem ñu dindi suñu xol yi ci alal jiñ ci at tey bokk na ci alak réew mi mooy alal koo gis dafa bëgg a am ba am am bi dootuñu ko contrôler dafa baax wala daganul wala nanga yow daal en tout cas na xaalis bi bari léeg-léeg sax nga dégg kuy kuy tukki mu ne alal ju bari wala bàmmeel bu sori ñaateel ngay dégg alal ju bari wala bàmmeel bu sori lan moo indi barsa wala barsax alal rek bu fekkoon ne ndeysaan moo tax benn bis man leen yéen indi ngeen ëllëg yowmal xiyaam problème de ku fi wàccul kaamil ku fi nekkul docteur pour islam parce que imaginer nit ñi di dugg ci ay gaal di dee est ce que mënuñu woon jël gaal yooyu dem Màkka jàngi wala ñu dem Égypte jàngi dañu dem Maroc jàngi dañu dem Mauritanie gi jàngi lan moo tax nit ñi di dugg ci gaal yi di dem Europe dugguñ ci gaal yi jàngi parce que alal lañ gën a gëm a xam-xam su ñaari nit ne woon cëpp ci aéroport kii dafa uti woon xaalis kii daa jàngi woon gars yi kan la ñuy teeru ji xataa jigéen ñi sax ñu ne ah waa ji de dafa jàngi woon mokkal na riwaaya yépp alquran lépp mokkal na riwaaya yi ñu ne kii de dafa demoon Italie ñoom ñaar ku ku jigéen ñi teeru ji nit ñi ne lu mu jàngi woon ñu ne alqu- alquran Ah! yàlla waaw kenn du teeru jig ne alquran alquran ñu ne dañu koy defee ni kii nag moom Italie la jógee nga dégg ñu daw yenu valise ñu leen yàlla baal kon foog ñu génne suñu xol yi ci bëgg alal ak lan bëgg daraja loolu tam daf ñu alak bëgg daraja fëgg fu nekk yaay nekk ci kanam yaay wax yaay jiite même sunu mouvement islamique yi lan moo koy indi bëri nii bëgg daraja bëgg njiit ak place maqaam yooyu amul benn njëriñ bis boo dee grade yi yàlla wàcc ko gis nga bu nit beneen waaye faatoo ñu dugal ko ci morgue bi di sang ku ñëw du ne ana colonel ana xalif général bi ana waliyu bi ana muqaddam bi ana sëriñ bi ana borom xaalis bi su ñëw lu ñuy wax ana jaamu yàlla bi ana néew bi allahu akbar ñaari ñaari tur yu mu bañoon bi muy dund lañ koy wax ana jaamu yàlla bi bu ko woon nekk ana néew bi mooy ko amatul dara néew lépp la néewle amatul tus ñu ne mu ngi ci morgue bi ana ana grade yi mu takkoon ana ana ngand ngandul bi ana ana ana lim nekkoon ana mu ana milliardaire bi wax nañu ana milliardaire bi jeex na ayna abdallah ana jaamu yàlla bi la ñuy wax ndeysaan ñu ne mu ngi mu ngi ñuy waajal waaw dañoo amoon benn borom xam-xam bu nekkoon suñu jàkka ja bu noddee ba pare danaan waaj leen bala ñu leen a waajal waajal leen waxtu bi bala ñu leen a waajal waajal leen waxtu bi bala ñu leen a waajal kaay leen julli balaa ñu leen a jullee kaay leen julli balaa ñu leen a jullee su paree mu ne lu baax du doy de ñetti baat yooyu rek lay wax moom lu baax du doy lu ñetti yi mu wax yëpp dëgg la waaj leen bala ñu leen a waajal julli leen bala ñu leen a jullee après mu ne lu baax du doy lu baax du doy moom loolu tukulóor la mbokk yi ñu ngi dugg ci yàqute gi adawaatul fasaad min adawaatil fasaad bokk na ci yàqute yu ñu indil al i'laam al maktub aw il masmu aw il mar'i bi afkaarihi wa suwarihi mooy lan al i'laam mooy communication mooy journaliste yeeg télé yeeg rajo yeeg li ñuy dégg ak li ñuy gis lépp dafa ñëw pour yàq internet lépp tey rajo yi li ñuy yàq Sénégal ak télé yi kenn xamul nu mu tool ba pare ku gën ku la gën a bon day léegi day dem rek ñu jël ko muy animé moom la ñuy jox programme bi ku ci gën a yées gën cee bon moom la ñuy jox micro bi muy yendu guddeeg bëccëg di di ŋàllee ko rek di yàq xeet wi même da ngay gis sax réew mi langage yi nit ñi di wax langage bi langage yu animateurs yi la ay ay taqrib ak ay ay mboroxeeg yu bon yu xaraam yoo xam ne dara nekk ci wax ju jub walaay yéen a ngi ree lu ñuy jooy billaahi lazi laa ilaaha illaa huwa wax yu bon yoo xam ne dara baaxu ci ki ci gën a yées gën cee bon bis bu nekk asamaan ak suuf di ko rëbb moom la ñuy jox micro bi bu fekkee ki gën a bon li muy bind ci journalam moom la ñuy ëpp lu ñuy jënd di ko liir bu fekkee télé boobu moom la ñuy gën a déglu seetaan bu fekkente ne lu ñuy déglu la foofu la ñuy ëpp bu fekkee lu ñuy xool la foofu la ñuy ëpp bu fekkee lu ñuy liir la foofu mooy ëpp ba pare def ci ay xalaat yu bon yoo xam ne di ci xeex lislaam xeex goo xam ne fan yii yéen ngeen problème mu Égypte bi ñan ñoo sul ñan ñoo ko def mais journalistes yi ñoo bañ lislaam lu nekk ñu koy diaboliser mouvement islamique yi ak président bi mais loolu moo am fi adduna bi yëpp parce que xam nga lu tax juif yi ñoo mën a pour ñoo ñoo yor ñoo yor communication bi ñoo yor lépp ñoo ko moom génn wàllu télé yépp seen alal la benn si ndax moo fi toog rek ngeen yaakaar ne moo ko moom fekk moomu ko wallahi ay si ndax lañ si ndax sax moo leen gën day yow ubbi sa kii sànq mu ngi doon wax ne am na benn télé bu ñu nekk di yëngatu xam nga waroon télé lu mu wax man bàyyi naa dematuma dafa xëy na télé bi dafa bëri islam waay yi am dafa bëri et puis balaa nga maa may dere ngeen xëy di teg màkk màkk guddi màkk bëccëg fii am nay jàkka waay génne leen suñu jàkka yi te loolu duggee sama nopp laa bàyyi dematuma waaw nee na télé bi daa bëri daa bëri daa bëri ay ay waxtaanu islam bëri l'islam waay bi ba bëri da ngeen a bëgg diina trop trop trop trop ah ah pour wax leen rek c'est que est-ce que moom moo ko moom est-ce que waxuñu ko bismillah am ubbil loolu mooy wax bi loolu mooy wax bi léegi nag mu des ñun ñun ñoo ñun tam ñun ñoo mi ñun la ñoo deful dara di ana seen rajo yéen ana seen télé ana seen journal yaa na ñu ne ko def di ku laabal ku laabal bët nag ko neex ngay xool kon yooyu mooy yàqute bu njëkk pour ngeen xam bu ngeen jógee di defar fu ngeen war a njëkk a dem mooy il faut ngeen fexe ngeen xam ne li yàq réew mi li ci njëkk mooy média yi loolu lu njëkk day yàq loolu nag daf ci am lu ñuy bind daf ci am lu ñuy déglu daf ci am lu ñuy xool ay xalaat yu bon lañ ciy génne ak ay image lu kenn xamul xoolal xoolal jigéen yi kenn solootul ci télé yi da ngay yaakaarloo benn jigéen bi def journal ween yaa ngi ci biti yow léegi looy déglu wax ji ngay déglu wala dafa am leneen looy dundal xol looy dundal sox bi waaw benn waaye benn sëriñ may lire benn téere quoi léegi ñu ne cheikh bi waaw bu fekkee télé bi benn jour benn jigéen rek mooy def journal bi te jigéen bi day sol lu bon te mais li muy génne information dafa importance léegi ni ñuy def pour xool ko cheikh bi ne nga jël benn sër sàng ko ci télé bi di déglu wax ji bañ a gis image bi cheikh bi loolu la toon mu ne ngeen jël benn sër sàng ko ci télé bi di déglu wax ji bañ a xool image bi dégg nga de xam nga coono ñëw na coono ñëw na télé bu ñuy sàng mu mel ni dafa liw nan yàlla yërëm mu ne bokk na ci loolu encore ci musiba yooyu al fann al munxarif fann aar xool artistes yi ñaata ñaata groupe musique ngeen am si ndax yu jóg ut seeni instrument commencé génne kaset waaw te si ndax yu ci jóg ñu financé leen ñaata groupe musique laa ngeen am kenn xamul même ci koñ yi équipe bu nawetaan bi équipe bi foog mu am benn groupe bu théâtre benn groupe bu nangam benn groupe bu na xoolal Sénégal li fi fecckat dañ may nettali benn benn benn jigéen bu jël doomam daal ko yóbbu ci benn woykat bu xaraam fecckat bu gën a yées ci Sénégal fecckat bi ci gën a yées benn jigéen jël doomam ne ko am dénk naa la ko may naa la ko ñu ne ma xale bu jigéen bi dañ ko doon ngénte barki dem man gisaguñ dara waaw ki ñu may yoon moom lañ doon ngénte barki dem day naa di ko tuddal xale boo xam ne amul sax 18 ans ñu génne ko école de da doon jàng yaay ji lan la lay nee na diw sama doom dalaa bëgg moo tax ma indil la ko jox la ko gis ngeen xale ba ñu ëmbal ko ah parce que femme bi fu bon lu ko yóbbu lu bon lay def ci lay dunde ci lay dundal ndeyam ak baayam gis ngeen bi ñu ko fi jàppee ndeyam ak baayam ñoo ñoo ci télé ak rajo bi di ut ku leen dimbali di ne moo leen di dundal loolu la su ngeen gisee patt pattaaral gi noppi paa yu bari fii xale yu góor yu jigéen yooyu ñoo leen di dundal ci mbon googu xale bu jigéen bu fekkee mooy joxe 3000 dépense par jour am na ci xale bu jigéen boo xam ne buy dem yaay day dugg day dugg taxi yaay ji nekk ci kanam mu nekk ci ginnaaw parce que da koy masqué bu ñu demee 20 mètres mu ne borom taxi bi taxawal mu taxaw yaay ji wàcc xam nga bu ñuy dem ci koñ bi day mel na ñoom ñaar ñu ànd mais taxi bi 10 mètres rek mu ne ko taxawal mu taxaw maire bi wàcc taxi taxi bi continuer xale bu jigéen bi dafa jëndal maire bi portable bu nekkee ci àll bi ba heure bii mu war a tëdd si day woo maire bi tërr egsi naa manqué bunt bi jógal ubbi maire bi jóg ubbi ndànk lay ubbee bunt bi kii ndànk pour bu ak ak koñ bi du ndékk gis nga mu nga léegi loolu tax kenn du wax dara parce que paa yi amatuñ maire yi amatuñ xale yu jigéen yi ñoo yor kër yi ak xale yu góor yi waaw boo xëyee ñuy ni la mburu ak beurre ak café nga ne yàlla nga gudd fan yenn saa yi mu indi la portable buñ ko bu buñ ko may mu war a changé beneen bu bu bu mu yoroon mu ñëw jox la ko lay wax bu xale bu góor bi indee bu mel ni ne la paa ki baax na ci yow de fekk yow yaa ngi yoroon benn ki lu xeen xamul lay wax da ngay noppi ndeysaan nga wuuteeg li Mariam defoon alxuraan li mu ñu nettali keroog ba mu fekkee Mariama ay firwi yoo xam ne waru fi nekk lan la ko wax yaa Mariamu nii la ki haza foo jëlee lii foo ko jëlee léegi loolu di jeex na Sénégal gis ngeen kon ci biir loolu ñu naan fànn il faut fekkee dañu jóg pour defar ñu xam ne loolu moom day yàq artistes yi li yàq Sénégal ci lañ bokk ñoom ñoo changé solu xale yi ñoo changé langage bi ñoom ñoo changé bëgg-bëgg yi wala way rek way ba ba nekk multimilliardaire way li waykat yi yàq Sénégal Firawna yàq ko ci diine yonent Yàlla Muusa waykat yi benn cheikh da doon def ifta ci benn cassette mu ne wallahi waykat yi ku leen freiné islam dem mu ne agresseur moo gën waykat ñu ne ko waaw lu tax loolu mu ne ndax agresseur benn nit la agressé mu ne waaye woykat bi adduna bi yëpp la agressé ndax kasetam bi monde bi yëpp lay wër fu mu dem yàq te li ñuy way dara baaxu ci yéen gis ngeen léegi li ñuy way way yoo xam ne ay saaga la wala may ma ci sa lii sa lii ay luy luy lang te du wadd te dañuy def ay isaara di joxoñaa di wax wax yu bon yoo xam ne yow da ngay xam ne lii nit sax ku baax waru ko wax te kenn du ko dégg daal di koy dagg ne lii du du fi génn wala ñu génn fecc yu bon takk yoo xam ne sér yu gàtt yu lu mais da ngay toog nii ngi ngay gis góor gi yor kurus ne nii ci biir kër gi ci biir saal bi bu njëkk ba benn waaye nee na paa bu déglu musique da na fayal rek ñu abdallah ñu naan wàññil waaye wàññil loolu wàññi ko wàññi ko waaye wàññi ko kenn dootuloo fayal léegi wàññil rek fayal jeex na fayal rek fayal jeex na wàññil ñu ñëpp mu ngi noonu moo nekk suñu kër yi musique guddi musique bëccëg waaw guddi guddeeg bëccëg mu ne way yooyu ngeen di gis ak artistes yooyu ngeen di gis xol yi la ñuy yàq xol yi musique day rey xol innama yunbitu nifaq fi lqalb yonentu moo ko wax iyaakum wa istimaai l agani fa innahu yunbitu nifaq fi lqalb kama yunbitu lma albaqla yonent bi nee na mooy te ndiku leen déglu musique ndax day saxal ak naafiq ci xol comme ñax comme ndox ni muy saxale ñax déglukatu musique boo gis naafiq la bokk na yàlla nee na mu ne mais mais mais gars yi affaire boobu foo ñu xoolaat ko te nee nañ ko yàlla nee na léegi sax dañuy dagg dañ koy daganal kenn tereetu ko mu ne xol lay yàq da koy pénétrer fi alquran doon dugg yàlla naan ala bi zikrillahi tatma'innul qulub fala musique di dugg ne fa faax ak mbon ba pare nag lan la ñuy defaat mooy dañuy changer culture nit ñi xoolal tey culture sénégalais yi nu ñu ko changé sénégalais yëpp nekk suñ jullit xool lu ñuy sol xool lu ñu def seen bopp yi xoolal rosa yi ci gémmiñ yi xoolal tànk xatta xale yu góor yi ñàkkul fii tey ci jàkka yi ñoo xam ne bu nuy julli fajar day gis seen silib yi ci biti tubéy yi fu ñu koy takk ay bu ñu ne woon jóg leen taxaw léegi nga gis ay silib yu génn tubéy yi kenn dootu ko takk ci ndigg li ci ndigg yi léegi tubéy yi fu ñu koy takk waaw silib luñ ci wane man dama laaj question ba sonn aw ma silib luñ ciy wane surtout nag silib yoo xam ne yenn saa yi juróomi fan kenn du ko bàcc bon mais tubéy tubéy dañ ko yëkkati ci kaw takk ko ci ndigg li imagine dama gis ñetti ñaari xale yu yu yu yu góor yone yore benn télé ngandu télé mais dañuy dem ñaari mètre teg télé bi xëcc ci tubéy dimantre ba ma taxaw di leen xool bañ egsi ci man ma leen walaay télé bi du yegg waaw lu tax du yegg ma ni ñaari mètre teg télé yëkkati tubéy seen tubéy du ngeen ko takk ci kaw billaahi wallaahi daal ma taxaw di leen xaar bañ ñëw ma leen télé bi du yegg wala balaa mu yegg yéen di ngeen dee ñu ne ah ma ni seen tubéy du ngeen ko takk yëkkati télé bi ñu ne père wax nga dëgg ah père waay topp leen fële ngay naan maam loolu mu ban diine la ban diine moo santaane nan takk suñu tubéy yi ci ay pooj ah lii li am Sénégal musiba la ay te léegi da nga defe ne xale yi ndaw yi ñoo koy def ay magum jëmm ay mag yéen saa ngis burum sikkim boo xam ne tubéy ji fi la ko teg yëkkit yolomal yolomal yolomal génn silib nag géey ba pare waaw dafa ne mu ngi ci dara man ne boo ma jegee man la yëkkati sa tubéy bi ñuy kan la ñuy roy mooy li ma leen wax léegi gis ngeen loolu yëpp artistes yi ñoo ko def dañuy changer société bi xoolal tey xale jigéen yi sedd bi ni muy reyee nit ñi di kof kofi da ngay gis góor ñi sol ay manto ñiy sol lu nekk nga gis xale bu jigéen boo xam ne li mu sol motul kilo ci suuf ba ci kaw motul kilo motu ko billaahi boo boolee mbubb mi ak li mu sol tubéy bi motul kilo boo ko tegoon ci balance du dem loolu ban diine la def yaramu neen ci waxtu wi moo tax loo ci gis kenn ci ñoom wérul kenn ci wéru ci yéen xam ngeen ci dara kon loolu li ko waral mooy artistes yi kon art bi foog ñu defar ko parce que ñoom dañuy yàq ñoo changé culture bi ñoom ñoo tax société bi mënatul dal parce que seeni xalaat lañ leen di jox ba ci gis ngeen ñiy jaay cuuraay dañuy jël seen wax yi dem tuddee ko cuuraay yi ñëw di ko jaay dañuy dem ba Chine ñoo ne defal ma cuuraay nangam nga bind ci nangam tur yi ñoom ñoo koy joxe ji foofu su ko defee ñu bind ko ci ñu indi ko fii nag ñu naan waaye yéen gis ngeen affaire bi gaa yi génne fekk ñii ñoom ñoo ko yóbbu foofu kenn génnewu ko ñoom la ñoo ko yóbbu ba foofu def ko ci affaire yi indi ko di ko jaayaat ci ñaw yi sax noonu la ñaw yi téyeer yi li ñuy ñaw ñoom la waaw li ma daan xulu xale yu jigéen yenn saa yi kon il faut ñu bàyyi xel mbir yooyu ñetteel mooy marakisil fasaad place yi nga xam ne dañ ko tabax kese pour yàqute ñaata salle dancing moo am ci Sénégal ñaata ñaata salon yoo xamante ne mbon rek moo fa am tey auberge yi ñaata la hôtel yi ñaata la Sénégal auberge yi dañoo dem ba ëpp hôtel yi soo demee tefisu géej gi lépp ay auberge la dëkk ci biir dëkk bi yëpp nag day gis benn immeuble bu rafet fekk auberge la ay xale yu góor ak jigéen ñoo fay joxante rendez-vous li leen di wan loolu sax mooy am na fi benn journaliste bu ñu jàpp fan la yóbboon xale bu jigéen bi am na fi benn góor gu dee ci benn auberge benn commerçant bu mag mars zinc yóbbu fa benn jigéen di seey moom dee fa ah yéen di xanaa dégg du ngeen déglu information yi lu ma leen wax kay di ngeen ci teg bët wala déggu leen loolu place yi nga xam ne tey dafa bëri yuñ ciy def lu bon du jeex yoo xam ne uniquement loolu rek lañ ko dee lañ koy doyee waaw xale bu jigéen boo gis mu ngi portable bu toogee papaam daal di dindi sonnerie bi dangay jékki-jékki rek ah du wax de ah ah dem de trois mètres dem fële xam nga ne loolu du jàmm et puis jëndal xale bu jigéen boo xamante ne mu ngi amay dix ans portable ku koy woo kan lay waxal et puis portable yi tey li ci mbon ci ay message ci ay image kenn xamul nu mu toll moo tax danger weesuwul sa doom bu jigéen yor portable wala sa doom bu góor weesu ko surtout nag boo ko yeewul encore ati kon doomu ndey yi ay place la yoo xam ne ay tomb la yoo xam ne bu fekkee ne dañuy jóg pour defar Sénégal gii lii nii moom foog ñu jële ko fi wala ñu changé ko wa hiya kullu makanin yuqsa allahu fihi place yooyu mooy bépp place boo xam ne dañ fay mooy yàlla waaw beneen bi mooy silatu internet al muxtalifa wala internet bi wala facebook ak yeneen ak yeneen xoola mbon ngi ci nekk te xam nga nit ñi lépp loo gis rek am na lu baax am na lu bon au lieu nit ñi di jël lu baax li lu bon rek dafa mel ne nit ñi dañuy leen di pikiir jëme leen ci lu bon li fekk am na ci lu baax mën nañu utiliser lu baax li waaye internet li mu yàq tey ci ay ndaw kenn xamul nu mu toll dañoo am benn site internet bu tudd Al Afia dañ ci def ay waxtaan di ci def ay xutba juma di ci def lu baree bari sunu numéro def ci nekk semaine ba la passé dama jékki-jékki rek benn waay daan may woo daan may wax fi mu nekk ma laaj ko turam mu ne ma non bëgguma la wax sama tur parce que bu ma la ko waxee da ngay décourager da ngay raccrocher téléphone bi ma ni ko non duma ko raccrocher insha allah mu ne ma aussi damay bañ nga wax sama tur ci rajo yi wala télé yi ma ne ko jaayante naa ak yow ak yàlla duma ko wax mu ne ma man la diw mu ne ma bi mu ne man la diw téléphone bi ne teg mu ne ma gis nga li ma la doon wax ma ne ko non maa ngi lay déglu li man ko yow laay déglu nga continuer mais waa jooju dafa nekkoon ci mbon nekk ci mbon ba génn Sénégal mais maa la asaf ci bëgg a génn mënu cee génn te la moo ko ci dugal yaayam waaw biñ ko daaxee école primaire mu nekk xale bu ndaw comme yaayam day woy ci ngénteeg di togg ci ngénteeg nangam nangam yaayam ne ko nan nan daan nañ ànd mooy dem bu may woy nga may tàccu xale bu góor mu dem ba jëlee fa benn feebar boo xam ne musiba boo xam ne mënatu cee génn te li ma leen di wax ne ñii ñii def lu bon dafa am ñu nekk seen ginnaaw gis nga waajooju bi mu sonnee Sénégal benn dëkk moo ko jël si fii yóbbu ko foofu seen dëkk ñoon ay nit ñoo ko jël si yóbbu ko seen dëkk wutal ko passeport dëkk ba jox ko nationalité dëkk ba ba pare ne ko yaa ngi sunu sécurité ñun ñoo lay aar chaque jour daf may woo di ñaan pour ma ñaanal ko pour mu génn ci bon googu pour wax leen ne gis nga sunu aarul sunu sunu aarul dëkk bi du hasard ëllëg ngeen gis benn doomu kilifa non loolu sax commencé na dégg ngeen fi ay doomu xalifa général yu nekk ay rappeur waaw ay doomu imam yu nekk ay ay animatrice nga ne man sama papa imam la waaw waaye gis nga sa papa ba mu nekkee imaam lu lii la bëggoon ci yow parce que sa papa day gas ngay suul ñaata ngeen dégg loolu kon du nekk hasard parce que lu tax mbon yow xëy na baay ji mën nga mën nga riposter mais doom ji fi ñu koy yaaxee doo ko fekkee loolu moo tax borom xam-xam yi naan bu ngeen gisee lu bon di ñëw nii wala mu nekk tuyau bu toj di wala ngaan bu kenn rek yor sa peel ne du comme ndoxum tey yéen ci mën ngeen mën nañ leen ko wax parce que yéen fii am na mën na wala amul mën am na su ndox mi jaaree ci mbedd mi dem fii lu ñuy def ku nekk day jël peelam di di naan nii di di aar sa kër mais ndox mi fa mu jëm bu feesee après nu muy def day def demi tour gis nga sa kër gi ngay aar ci ndox mi la dëgg lay dugg loolu mooy mbon bu ñu toogee fii rek suñu jàkk ji dafa ne waruñoo xalaat pour buntu mbon yi nuñ koy tëjee. du nekk hasard mu ëllëg ak si biir ñu gis sunu doom sunu jarbaat sunu rakk sunu sunu sunu bu dugg ci mbon googu te duñ ko mën a sauver loolu moo tax ñu war a aar mbon parce que aar mbon mooy koñ bi kenn du fi mën a yàqu mais bu ñu bàyyee benn waaye ñëw ci koñ bi daal di jënd benn kër tabax ba mu rafet daal di fay ubbi baar ñu wax ñu ne moom moom moom këram de ah kii de kenn mënu ci dara li ñuy wax ne un nay kayit un nay kayit nag tabax yi baar bi ci xaj fii ay jullit ñoo fi nekk du yàq suñu quartier te ki tabax baar bi du fa tabax du këram du fa dëkk de moom baar bi kese ak ay butéelam lay indi ay doomam nekk foo xam ne boo jëloon avion di naaw sax doo yegg ci ñoom gis ngeen léegi nag mu bàyyi baar bi ci diggu koñ bi wala mu bàyyi place bu bon boobu ci diggu koñ bi fu ñuy mujj mooy koñ bi xale yépp dugg ci mbon gi xale yu góor ak yu jigéen da ngay dégg tey ñu ne la jigéen ñi ñoo gën a bon góor ñi dégg ngeen fi ñeenti maire yu demoon jaale ji di tux yàmbaa bañ jàpp leen ci dëj ba wala déggu leen loolu waaw yéen di man yéen yéen moom xanaa yéen buun amul rajo ay wala yéen dëkku leen Sénégal ah waaw léegi nag ginnaaw ba ñu waxee ne yi ñooyu mbon yi ci tënk yi ñëw ci dawru sabab fi muwaajahatil fasaad lan mooy seen rôle nag tey guddi gii pour ngeen taxaw ci kanamu mbon googu luy seen rôle ndax dañuy toog ne lii lu bon la rek après ñun toog fii di reetaan ma ne ndax dañ naan yii ñooy yu bon yi rek ñun ñu toog fii tey di ree ne lii mooy lu bon lan mooy sunu rôle pour dindi loolu alfasad huwa maradun xabiis yàqute feebar la bu bon ba pare bu tasaaroo tey ci biir umma bi mbon dafa tasaaroo xoolal li ñuy wax léegi dem dëj dem dëj ku dem dëj xanaa di wax ci kaw sax dafa ñaaw ci yow walla même góor gu dem dëj yor cigarette di tux sax dafa ñaaw waxumalaak nag jigéen waxumalaak nag mag waxumalaak nag yàmba ay meer ay meer xam na Sénégal pare nañ de ñun sës nañ de billahi ñu ngi ci porte bi dem nañ ba sës ma ne même bu doon ay góor sax dafa ñaaw même bu doon cigarette la ñuy tuux sax musiba la mais xoolal mu nekk jigéen mu nekk mag ñoo xam ne kenn ki am na ñetti doom kenn ki am na ay kaaran nangam ba pare nag mu nekkaat yàmba ba pare nekk ci dëj ku dee ku dee ñun fan lañ toll waaw weesu nañ foofu xool yi xomaat kon feebar la boo xam ne dafa tas ba pare ci biir umma bi yëpp bi feebar bi tasaaroo xam nga feebar lu mu def dafa rey xol yi ba kenn dootul am yëg-yëg loolu moo tax ñuy wax mbon gi ngeen di ree parce que xol yi ñoo wow waaw xol yi xol bi xol yi bu baaxee buñ leen di wax diine dañuy jooy wa iza tuliyat alayhim ayatuna ayatu zaadal iman wala rabbihim tawakkalun mais xol yi bu woowee kok suñ leen di waxati léegi diine yàlla bi dañuy re dañuy jooy dañuy dañuy reetaan sahabatul kiram bu yonent bi alayhi salaatu salaam daan leen wax lii lu ñuy def jooy ndeysaan da ngay dégg jàkka ji ñi jàkka yi di riir ndeysaan kon feebar la boo xam ne bi mu reyee xol yi ba mu ne kang gis ngeen ma waxaa leen beneen misaal jéggi ngeen fi ndaw soo xam ne dafa tàngal diwlin ba mu tàng nu mu ko def mu sotti ko jëkk waxuma sax mu sotti ko dëkkandoo de wala mu sotti ko kuy sàcc wala mu sotti ko benn bandi waaye mu sotti ko jëkkëram diwlin diwlin bu seddee bu ñu la ko sottee sax foog nga sangu ji waxuma laag nag ñu tàngal ko ba mu tàng ba pare sotti ko sa kaw sotti ko sa kaw dégg naa waa ji daw dugg ci duus bi mu ñëw xëcc eggali li desoon ci marmet bi ah lu ko waral mooy xol xol yi ñoo dee xol yi ñoo dee nit ñi amatuñu yërmande amatuñu yëg-yëg lu tax parce que yàqute gi dafa dem barey xol yi kalla barraana ala qulubihim maa kaanu yaksibun yonent bi nee na xol day xumaat barraana raan loolu lan la yonent bi nee na xol yi bu xamaatee na ngeen ko dundalaat ne wa ma jalauha ya rasulallah qaala tirawatul quran wa zikrul mawt xoli bu deewee waaye góor-góor leen ngeen dundalaat ko ñu ne lan moo koy dundal mu ne alquran ak dem armeel ya dem bàmmeel ya mu ne yooyu tamit bokk na ci feebar yooyu kon war nañoo jàng li zalika alayna ittiba asalib madrus li muwajahati minha il faut ñu jàng gis nga ni ñu toogee nii lii nii tey waruñu wax ne 31 décembre rek moo tax ñu def ko après guddi gi jeex na pare nañ ci semaine bi war nañ dajawaat ñun ñi fi daje woon ñëpp ñu xool waa li ñu doon wax lii grand bi doon wax ci conférence bu njëkk bi li ñuy wax nii ñu càmbar lii nan lañ ciy génnee lan moo ci war a nekk suñu taxawaay yan action la ñuy def waaye bu fekkee dañuy daje nii rek naan café yow déglu waxtaan dem ñibbi du am benn njëriñ du am benn njëriñ il faut ñu jéem a jàng asalib yoon yi nga xam ne dañ koy teg pour lan contrainte mbon gi bu njëkk mooy seen rôle sunu rôle mooy rasdu masadirihi wa sa'i li ijaadi xutat difaiya li muwajahatiha abra nashri saqafati l islamiya waa'iya sunu premier rôle ñun góor yeeg jigéen ñi buñ fi jógee ñu war a xam ne war nañu dajale sunu doole pour baare bépp yoon boo xam ne wala bépp étude boo xam ne dafay tax mbon tasaaroo waaye ñu fexe ba teg place am culture islamique nit ñi am culture islam islam nekk seen bopp gis ngeen wallahi alazim sunu kër yi bu fekkoon ne dañuy waxtaan ak sunu doom yi ndaw yi xale yi ndaw yi kon mbëri dootuñu am valeur kon télé yi dootuñu am valeur film yi dootuñu am valeur yu bëri dootuñu am valeur même ay photo photo yi nii man dama nekk xale yu ndaw yoo xam ne wallahi alazim yàlla mooma tiim ci biir néegam laa nekk yu xale yi damay jékki-jékki ñu ñuy def ay mbir yoo xam ne damay dima yéemu dugg naa benn car rapide di gont ànd ak xale mu fatt noppam ma ne ko yow lan la mu ne ma xoolal lu xaraam lii kii teg fekk musique la waa ji teg apprenti bi ne nii ma ne apprenti wuyul kii wuyul xale bi mu ne ma la mu ne ko booy lan la mu ne ko li nga teg dafa xaraam apprenti bi ne non non c'est pas possible ah mu ne ko tegal alquran yéeféer yi nga doon wallaay chauffeur bi daal di teg alxuraan posteeru mbër yi bu ko gisee na xoolal mushrik yi xoolal ñu bon ñi xoolal seen yaram yi ci biti gis nga lu tax parce que dañ ko teel a wax ne lii baaxul munoo munoo di wallahi sama kër munumaa jappe télé di seetaan journal wala dara jigéen génn bu def bopp neen ba ñu ne damay essayé ne su ma nee ni ma ne ma bàyyi ñu ne na jàll na jàll na jàll nii rek la ñuy def xool dañuy taxaw naan na jàll na jàll na jàll ah li ñuy seetaan du bëri de noonu la ñuy def waaw dañ koy essayé wallahi day jàll ci xale yi xaw ma est-ce que amul quatre ans loolu dañuy dañ koy teel damay wàcc yenn saa yi dugg sama néegu yaay asalaamaaleykum ñu ne ma yow moshe rek ngay nuyu jigéen man ne kii sama yàlla ñu ne amul benn yaay jigéen la magam ñoo ànd mu ngi fi ci biir yaakaar bi di nelaw benn bis day fa feebar moom magam bu jigéen seen yaay yóbbu leen hôpital bi muy ñëw mu jël clando mu def leen ñoom ñaar ci ginnaaw mu toog ci kanam ma wàcc ci midi ñëw di seet nu ñu def mu ne ma balaa ngay wax sama yaay tey lu xaraam la def lu xaraam ma ni lu xaraam lan mu ne dafa dugg oto toog ci wetu chauffeur bi. xale bi ne ndaw si ne loolu lu ci nekk mu ne ko ci doo toog ci ginnaaw xoolal man ko gis nga defal attention te pourtant xoolal li mu def pour pour ñun fii lan la dugg at dugg dugg clando nekk ci kanam xale yi nekk ci ginnaaw pour ñun du dara mais xoolal mu ne ma dafa toog ci wetu chauffeur bi il faut ñu bàyyi xel wallahi xale yi ndaw yi bu ñu leen yaree léegi l'islam ñëwaat lu judduwaat demul fenn puisque wax nag la fexe ba xamal sa doom lii ci télé bi baaxul yu góor ak yu jigéen waaw Xadija mos na seeti kër tàntaam mu dem yenn ji fa mu ñëw fekk musique mu fatt nopp yi ba pare mu ne ko yow kol gu bon nga yendoo lii du kolu jullit day kolu kol gu mag il faut loolu ñu koy yar suñu doom yi culture islamique fexe ba dugal saxaaba yi seen bopp yi gis nga kii ma ñu doon àndal di jàkk ji muy nelaw bi mu nekkee xale bi mu gënee nekk xale moom dafa ne woon bu ma kenn tuddee Mouhamed nañ ma tuddee Hamza mu ne Hamza laa bëgg bëgguma Mouhamed Hamza xam ngeen lu tax kan moo may tontu foofu da doon seetaan le messager xam nga le messager kenn du wane yonent bi Hamza la ñuy wane boo waxee rek mu ne man sahabatul kiram laa tudd maay Hamza parce que ni muy ñi ñuy traité film yi naan sahabatul kirama ngoog rijalun sadaqu ma ahadullah ñi ñoo sampoon islam mu ne moom bëggul tudd bu kenn noonu nañ ma tuddee Hamza ndax mooy jàmbaar bi parce que kooku la gis imaginer suñu télé bu ñu ci doon teg ñu baax moo tax kenn du fi teg télé film islam mu leen musak waane bañ teg fi film l'islam ci télé yi démb démb rek ñu ngi wane RTS ci màggal gi waa màggal gi ay mbokk yoo xam ñu ngi def conférence waa ji di dénoncer Petit Gallé nee na xale bu ñu tuddee Maam Jaara ak ku ñu tuddee Sëñ Saaliw ñu ne yéen day nukkum ko fecc Petit Gallé loolu lu bees la loolu fu mu nekk TFM ah bon encore ati gis nga de chaque jour dañuy créer émission bu bon voilà am na am na beneen beneen bu am Walfadjri mooy bi waa ji di indi xale yi xaw ma bébélal yooyu baaxul xale yi ndaw maa musa fekke keroog damaa toog fekke seetaan xale yi ndaw waa yi naa leen lu ngeen bëgg a nekk xale ya benn xale bi ne mbër mbër laa bëgg a nekk mbër mu ne ko mbër ñu ñu koy ree quoi lan mu naan mbër mais wax na dëgg mais xale bi mbër lañ ko wan man gis naa ci koo xam ne benn xale boobu gisul leneen waa ji da ko doon yëkkati xale bu jigéen bi waa ji da ko yëkkati pour teg kaw xale bi bañ xale bu jigéen la waa ji yëkkatu nga ñool toog fi xale bu bañ wàcc
léegi loolu nga ngay gis ku ku sang doomam ba mu set toilette ku ne ko demal kon ñun xamuñu sax ci luñ nekk ah ñun xamuñu ci lu nekk kon yooyu ay mbir la yoo xam ne foog ñu taxaw dugal culture islamique ci bopp xale yi ah Fatima Mhm. waaw yooyu yëpp dafa dañu war a jàngale rek xam suñu amee ay doom ñu fexe wala suñuy wala ñu ñuy yar maa ngi du ma fàtte du ma fàtte mukk misaal boo xam ne chaque jour ma joxe ko suñu jardin d'enfant bi benn xale boo xam ne xam nga dañuy jàng 24 ñun ak 25 ak lii fi mu nekk nii boo dem ñu ñu ngi jàng ba jëluñu fet benn xale boo xam ne dafa xëy suba seen waa kër jànguñu moom kese mooy jàng ci kër gi bis boobu parce que amuñu fet jour la 25 la 25 décembre la am ngeen 24 décembre fête la dafa xëyee le 25 xale bi xëy ñu sang ko jox ko ndékkee mu ndékkee ba pare ñu tegal ko sàkk de mu teg ko di jàngi si bi mu génnee seen kër seen kër étage la mu génn ci suuf papa jaa ngi ci balcon bi quoi ak mag yi ñu koy tooñ naan ko ah Ibrahima yéen amu leen fête woo da ngeen yow da ngay jàngi mu ne leen ñun jullit lañu papa ji nee na tuuti ma wadd billaay ndax ni nee na daf affaire daf ma koo duur nee na tuuti ma wadd ronga ñi di wadd ci suuf nee na xale bi dem mu koy xool image bi denc moom naan ko ñun jullit lañu ak xale bi ni mu ko yëkkatee ci loxo yi ne ko ñun jullit lañu. billaahi tuuti góor gi de billaahi lazi laa ilaaha paa bi dafa ñëw ci école ba di di di jooy nee na musul dund lu mel nii xool xale bu ndaw ah il faut ñu xam ne ñun tamit ñun jullit lañu. ñun jullit lañu mais bu fekkee ne ñun lu ñëw. lu ñëw ñu yenu duñ dem duñu dem foog formation bi tàmbali ci suuf yéeg jëm kaw mais bu fekkee nii rek xam nga lu ñu am mooy ay jullit yu fënëx jullit yu nëb jullit yu mënul dara jullit yoo xamante ne bu lislaam soxlaa kenn du leen gis waaw formation il faut ñu former xale yi fexe ba tas culture lislaam ci seen bopp yi tey xale yooyu bu ñu amoon diine ku leen woo ci bon yi duñ dem kon télé yi dañuy fay parce que boo wootee ba sonn gisoo kenn boo defee ba sonn gisoo kenn kenn du dem mais bu fekkente ne xale yi ñu ñu leen tuddee ñu baax ay Mohamed ak Maam Jaara ak nangam nangam mais seen yaay yi ñoo leen di solal ñu dem loo ci gis ñoo leen di yóbbu parce que bëgg sa doom génn télé télé mooy lan ah télé ban njëriñ la génn ci ak ñàkk ci génn lan la lay yokk mais xel yi la ñu fàtt kon nañu fexe nit ñi gëm lislaam xam ne ñun ay jullit lañ ñaareel mooy muwaajaha mazahir min bidayati zuhuriha bi turuq al munasaba nañu fexe ñuy jànkonte ak yenn phénomène yoo xam ne dafa tàmbalee fee ñu ndaw ndawaan di wala ngaan di dem lépp loo xam ne dafa bokk ci junudu iblis ak topp bànneex ñuy surveiller bu baax suñu biir kër yi di xam ñiy dugg di xam ñiy génn di xam lan la ñuy def si lan la ñuy wax si suñu doom kan lay àndal fan lay dem même portable am man dama daan toog ba caag rek ma ne sama ñaari doom yi jigéen yi kaay leen ñëw ma ne ma xool seen portable ñu ma taal dugg dugg boîte message commencé di lire lan looy def nii ma leen dara toog leen ñu waxtaan damay xool lan la yéen kay bu ngeen ci deful dara amul amul ragal amul ragal parce que loolu il faut da nga leen di bett jël ko waaye année bi nan laa def damaa nangu ñaari portable yëpp ah parce que dafa dalatul sama xel parce que sa numéro boo ko jëlee di ko jox kenn wala ngay abale wala wala wala wala lu nekk mën na la cee fekk parce que nit ñi mën nañu changer sa mentalité kon yooyu ay mbir la yoo xam ne foog ñu taxaw xeex pour loolu xeex ak loxo bil yad man raa minkum munkaran fal yugayyirhu bi yadi fay lam yastati làmmiñ fay lam yastati suñ eddi suñ demee nag ba léegi suñ gis suñ gisee lu bon suñu kër suñu loxo mënatu koo dindi suñu làmmiñ mënatu koo dindi dañuy toog rek naan coy mooy li ñu def nii toog fii ci jàkka ji di ko naqarlu loolu nag amatuñu imaan wala bu ñu amee imaan imaan bu daif la boo xam ne du tus man raa minkum munkaran yooyu nee na fal yughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati mu ne fa bi lisanihi fa in lam yastati mu ne fa bi qalbihi wa dhalika adaaful iman léegi mooy moom moo ñu dol nii léegi fu ñu toll tey mooy toog suñu jàkka ji bañ a nelaw di naqarlu loolu amul njëriñ nag wala bu amee njëriñ it du bëri parce que bu ñu fi bu ñu xëyee suba fi mu nekk nii ku dem ñu tegal la sa mburu ak sa kafe nga fàtte li ñu fi waxoon lépp koorom mu ne ko dem waxtaan yi neex na macha allah macha allah te yaa ngi toog di zappe télé bi macha allah bu ñëwee ba ci action yi nga nga nga arrêté amul du am na ci njëriñ parce que xamul tax imaan bi xol bi moo yàqu ndeysaan ñetteel mooy al istifaada min attaqaat fokk ñu jëriñoo temps bi doole ji foog ñu jëriñoo ko mbokk yi lii ndaw tey ci mouvement islamique yi ndaw yooyu seen force yooyu seen xam-xam yooyu ci lan lañ ko def da ngeen toog ba ci àgg benn jour ngeen xëy gis fii mbedd mi yëpp ñu taf ko par exemple la rajo xale yi bu ñu amee benn soirée bu ñu war a animé dañuy def ay këyit yu mel nii def ci seen lépp nga gis fukki xale dugg koñ bi à partir de gée bu ñu xëyee dañuy fekk fii yëpp ñu affiché ko wala wala bu fekkee dañu organiser benn xumbal ngoon gi da ngay gis ñu ñëw bale terrain bi ba mu set wicc wala ñu yendoo bale tali bi ba set wala pourtant ñooñu lu bon la ñuy def léegi ñiy def lu baax nag ñoom est-ce que mën nañoo xëy bale tali bi est-ce que mën nañoo xëy sax bale jàkk ji jàkk ji xam naa ne boo moytuwul dañ nañ ko bale xoolal si jaada yi bu baax yow wala fii ñu ngi koy bale jàmbaar lañu mais est-ce que benn jàkk bi rek moo fi nekk bii rek gaa yi di bale ana yeneen yi ah waaw gis nga ak leneen ak leneen ak leneen ak leneen lu ñu bugg a wax ci loolu misaal rek mooy ñiy def lu baax waruñu waruñu taxaw gis nga ñeen ni ñu sawaree yenn saa yi ma ne xale yi jimbo sax am na ñu ko liggéeyal jimbo wala gis nga leen jimbo ñu tol ko ay oto ñu tol ko ay moto cigarette Marlboro dañ ko utal ay oto utal ko defar ko ba mu rafet utal leen ay casque utal leen lépp ñuy dem partout ci Sénégal di di di di di di daawa pour cigarette jar wala gisu leen loolu ana ñan ñoo jóg fii di daawa pour l'islam jar pour nit ñi ñëw kenn am na kenn ku yëkkati de kenn ndeys kenn ana ñeneen ñi allahu akbar kenn rek moom mooy daawa kon ci jaaga yi ñaar ana ñeneen waaw dañu bëgg nag incha allah bu ñu paree li ñëpp nekk ay doigt ñan ñoo pare pour nekk ay soldaaru yàlla ñan ñoo pare allahu akbar ñan ñoo pare pour liggéeyal yàlla à part lii bu ñu pare waaw bu ñu paree nag incha allah ngeen ñëw cheikh bi jël seen tur ñeen pare pour liggéeyal quartier bi nga xam ne balaa déwén fii kenn du fi xej léppay fees ci kaw fees parce que loolu la aboubacar keroog bi mu duggee ci lislaam mu ñëw ne yonente bi ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah yonente bi jàpp loxoom yi loxo yi bàyyee guñu dafa ne yonente bi lan moo ma war yonente bi ne ko li ma war moo la war li ma war moo la war Aboubacar bu mu génnee premier jour Ousmane ibnu Affan la indi deuxième jour mu indi Arqam ibnu Abil Arqam troisième jour mu indi Bilal ibnu Rabah quatrième jour mu indi Ousmane ibnu Maazum cinquième jour mu indi Saad ibnu Abi Waqas xoolal bis bu nekk Aboubacar dina indi benn ponkal ci kanamu yonent bi bis bu nekk ba mu nekk juróomi fan. ñun bi ñu tàmbalee daaw ba léegi ku nekk ñaar nit nga indi nañ tàmbalee yamin nañ tàmbalee yamin day joor ñaata nit nga indi bi nga dundee sunna ba léegi nan dem na ñëw gisoo kon ne man kay man kay masha allah man kay ku nekk dafa am ko war a indi xoola tufayli ibnu amr keroog bu mu duggee yoon del dem daws dafa yuuxu ya rasulallah inna dawsan kafarat billah wa fasa fihimu zina farsilni ilayhim yonent fa ma bàyyeekoo ña ngay naan sàngara ña ngay njaaloo ña ngay ña ngay ña ngay yonent bi yónni ma ma dem waari leen yonent bi ne ko demal bi muy ñëw di indi mbooloo mi dafa indaale Abu Hurayra Abu Hurayra du du yonent bi ma ko daawa de Tufayli ibnu Amrin moo ko dugal ci lislaam kan mooy Abu Hurayra mooy ki ëpp hadis yi mu mokkal ci yonent bi alayhi salaatu salaam mokkal na ñaata 5374 hadis Tufaylu moo ko dugal ci diini Abu Hurayra gis nga kon ku nekk da war a indi ku nekk jigéen ñi de boo demoon tey fee ci jigéen ñi nga ne leen yow bi nga commencé muuru ba léegi koo indi kenn indiwuñu kenn. yoo xam nii man ñemewuma mbooloo mënu maa wax fu ñu jëm fekkee yow ñemewoo foo jëm nga war a woo nit ñi nga ne ñemewoo nit ñi fu nit ñi fu foo fu ñu jëm. te xoolal xale jigéen yi def lu bon wala ñuy sol lu bon ñoom nu ñu nu mu gën a bonee lañ gën a ñemee. xoolal télé bi artistes yu buy bon yu jigéen yi dañuy taxaw ci télé bi dàng di wax wax yoo xam ne waaw am fit yow na nga yor lu baax ragal ne ñemewuloo kii def lu bon moom ñeme ah dama yaakaar ne kuy def lu bon ñeme kuy def lu baax warul ragal foofu. Ibrahima lan la waxoon gars yi kayfa axaafu ma tushrikun naka laay ragalee yéen li ngeen bokkaale yéen ragalu leen ne yéen da ngeen a bokkaale man may am ma tawxid may ragal lan la wax allazina amanu walam yulbisu imanahum bi zulm ulaayika lahumul amnu hum muhtadun ki bokkaalewul yàlla kay moo war a nekk ci moo war a moo war a moo war a ñeme waaye ki bokkaale am fit taxaw di wax mbokkaale même da ngay gis sax ci ko nga gis benn waaye taxaw di wax waxu bokkaale ki ko war a tontu ñëw naan waaw xam nga mbir yi moom di ragal di ragal léegi lan moo tax ñun ñu am problème parce que tawhid kenn ñemewutu ko dañuy raay te tawhid opération la ki ñuy opéré foog ñu dagg foog ñu xotti foog ñu ñaw bu ñu bañee xotti bu ñu bañee génne bu ñu bañee raxas bu ñu bañee ñaw mais góom bi ñu jël alcool bi rek naan nii ci kaw du wér waaw léegi opération lay laaj dagg xotti xol bi génne ko raxas ko ba mu set génne lépp lu dul yàlla raxas ba mu set ba sirki yeeg lépp lu dul yàlla génn ñu ñawaat ko daal koy dugal ci biir waa ji daal di wér këng wa iza zukira allah wahdahu isma'azzat qulubu allazina la yuminu bil axira fa iza zukira min dunihi fa iza hum yastafsirun yàlla nee na nit ñi egg nañ foo xam ne bu ñu waxee yàlla kese nga gis gaa yi mer yàlla kese lañ fa wax yàlla kese yàlla kese loolu affaire bi kii waaye bu ñu waxee ji sëñ yu jaajëf waay commencé yuuxu il faut ñu xam ne yàlla rek la nag du keneen yàlla rek la kon temps bi ñu am nañ fexe ñu def ko ci lislaam ñeenteel mooy taazizul intima li xiwaayatil islaamiya mooy mbokk yi foog ñu def intima lan mooy intima mooy foog ñu xam ne ñun dafa am fu nu bokk dafa am fu nu bokk foog ñu adhéré wu engagé wu fan ci l'islam kan fii moo nangu sa waa kër bu nu doon xeex ak beneen kër ñu gàññee sa kër sa papa doon xeex ak benn paa ñu gàññee sa papa kan moo ko nangu bi kenn du ko nangu ñun dañoo war a adhéré wu ci l'islam ñu xam ne ñun ay jullit lañ góor ak jigéen ñu joxe suñu bopp gis nga saxaaba yi ba ñu joxee seen bopp allah yonent bi daaru arxam la amoon sooy dugg sa tànk ndeyjoor mooy dugg ñu ne la taxawal balaa càmmoñ bi ñëw yëgal ne càmmoñ bi moo war a fekk si ndeyjoor bi waaye ndeyjoor bi warul fekki waat càmmoñ bi ndax pare nga pour loolu soo ne waaw ñu ubbi bunt bi nga dugg moo tax loo gis loo gis saxaaba yi nga xam dañoo adhéré woon ci l'islam ku daan dugg daaru alxam di adhéré ci islam lan nga ci gis kañ ngeen ci gis ku murtad wax leen ma ko kañ ngeen ci gis ku ku def lu safaan kañ ngeen ci gis koo xam ne liggéeyul diine ci kan xataa jigéen ñi wala Sumayya keroog bu mu duggee daaru alxam génnaat allahu akbar dañ ko tëral écarté ko ne ko ukfur bi muhammad mu ne laa ilaha illa allah muhammad rasulullah ñu jam ko xeej ci fu muy tuuree ndox ba mu génn ci ginnaaw wala Bilal ba mu duggee daaru alxam génnaat dañ ko indi jox yar ne ko dóoral amaar mu téye yar bi ñu ne ko dóor ko mu téye ko dóor ko mu téye ko gars yi ne ko dóor ko mu sànni leen yar bi amaar jël yar bi ne ko aaral sa bopp dóor ma Bilal sànniwaat yar bi lan la ko Umayya wax sa umaziquk dinaa la xotti dinaa tàqale sa yàpp bi ak sa der bi waaye dóor na ba sonn lan la ko lan la ko jural saa yu dóor ba sonn mu ne ahadun ahad parce que dafa def intima ilal islam jàngeen xubayb buñ koy ree lan la wax ana la ubali hina uqtalu musliman dañ ko jàpp yeew ko ba mu dëgër gars yi di ko ne xaar leen bala ngeen koy rey ñu laaj ko ndax bëgg nga muhammad nekk sa place mu naan wallahi ma nga Medine bëgguma dëkk jam dàllam bëgguma dëkk laal dàll yi ñu dagg benn nopp bi deret ji tuuru ñu dagg ñaareelu nopp ñu ne ko waxal mu ne wallahi bëgguma dëgg laal ko ñu koy daggate di ko daggate ba waa ji sedd guy delluwul benn yoon parce que lan dafa def intima ci islam dafa engagé wu dafa adhéré wu mbokk yi est-ce que ñun adhéré wu nañ loolu mooy wax ci est-ce que adhéré wu nañ est-ce que li ñu nekk nangu nañ ko est-ce que nangu nañ koo woote est-ce que nangu nañ koo dund léegi sax nga benn waaye bu ragale nekk jullit bu ñëwee wax gars yi nu mu demee jaajëf waay wala mu ne asalaamaaleykum waaw gars yi jaajëf waay am am complexe wax asalaamaaleykum mais boo waay gars yi ñu waay xanaa Arabie Saoudite nga jógee parce que ñooñu dañoo engagé wu il faut ay waa ay ay bégee ay kenn xamul ay termes yu xam ne ki xam fu ñu ko jëlee loolu du nuyoo. yàlla yàlla yërëm juróomeel mooy tahzibu nafs wa saytarati alayha mbokk yi foog ñu segg bakkan yi qad aflaha man zakkaha wa qad xaaba man dassaha Busayri nee na an nafs ka tifl nee na bakkan liir la bakkan liir la suñ ko feralulee du fer gis nga jigéen ci am doom di ko nàmpal mu nàmpal ko ba xam ne xale bi day fer nu mu koy def da koy bàyyi mu continuer nàmp wala da koy feral koy feral est-ce que feral neex na kan moo fi mus a fanaan ak xale boo xam ne dañ koy feral première guddi doo nelaw day fanaane jooy ba bët set mën na jooy une semaine yenn saa yi sax yaay ji da koy yóbbu kër maamam ndax ni mu méttee léegi nag bakkan foog ñu def ko noonu sa bakkan bi boo ko feralul du- doo dem danga koy feral benn boroom xam-xam bu ma doon liir téere mu ne li tax yàlla sant ñu koor mooy mun a pour ñu mën a maîtriser bakkan yi lii ndox la dagan na wala daganul dagan na lii kafe la dagan na wala daganul ci waxtu woo xam ne dagan na ci yow ñu tere la ko nga laal ko ci ay heure bi nga xëyee fajar ba timis ci jot ñu ne la ndox mi daganoon na ci yow ñu ne waaw ñu ne la heure bi bul ko laal léegi yow xoolal weer nga nekk ci loolu nga mën ko maîtriser ko nga koy gis mu dagante doo xam nga ne door ga dagan na mais ñeme woo ko laal nga nekk ci weer ba weer ba mu jeex tàkk mu ne dañu bëgg nga def formation pour bu koor gi jeexee xale bu jigéen bi aramoon la xam nga kii moom dafa laa daganoon ñu ne kii nag dafa laa aramoon kon kooku war nga ko mën a bàyyi wala mënoo ko bàyyi kii moom dafa laa daganoon te bàyyi nga ko bi nga ko jéemee mën nga ko mais xoolal léegi ku gis xale bu jigéen lay wax taq ci rip boo ci taqee seeti jahannama de billahi lazi la ilaha illa boo ci taqee seeti jahannama munoo sangu fenn lu lu dexu jahannama wala géeju jahannama foofu rek nga mën a sete kon bu ci tax boo ci taxee jahannama rek ngay sete waaye ñàkk xam xoolal Yusuf lu mu waxoon bi ko ndaw si songee ey yàlla boo ma aarul ma sëy ak moom su ma sëy ak moom fan laay mujj nekk ma nekk jaahil baaxul képp kuy mooy yàlla rek jaahil la benn benn soudanais bu jógee ci kaw ga dafa ñëw ci ville bi mu am lu mu doon dox moom daanaka bés boobu la mës a ñëw ci ville bi ki ko doon yóbbu pour mu jënd ay bagages ñu mu fekk benn anglais taxaw ci anglais policier anglais bu taxaw ci carrefour bi di defar oto yi boobu ko temps colonialiste la woon mu ne moom moom moom soudanais bi nga xam ne ci kaw gi la jógee mu ne ki mu àndaloon man haza kii kal xam nga yëre yi mu sol ak ni ñu ko defaree waa ji ni muy sifflé mu ne man haza kii kal la mu ne ko kaafir kaafir mu ne kii yéefir la rek soudanais bi daal di dëpp daal di ne xal fil ardi kaafirun daal di dëpp dem ñibbi jëndul bagage yi mu ne am na ci kaw suuf ku weddi yàlla mu ne ko ah kii de dañuy dafa weddi yàlla rek waa ji dëpp ne man dootuma doy baax na baax na dëkk bii moom baax na pare naa fi comme fii am na yéefir pare naa ci dëkk bi wala ñooñu fu ñu toll ñun ñu yeewandoo ak ñoom di añandoo ak ñoom di ndékkindoo ak ñoom di jëflante ak ñoom parce que lu tax dafa ñu intima foog ñu def intima engagé wu mbokk yi mu ne ñu dugal loolu ci ndaw euh, bakkanu xale yi ndaw yi ñu fexe ba ndaw yi engagé wu ci l'islam comme ndaw yu njëkk yi nu ñu engagé wu woon ñu fexe ba convaincre leen ci seen diine ba seen kattan seen force ak seen bëgg-bëgg ñu jëmale ko ci l'islam lii bu ñu ko defee rek dinañ mën a freiner mbon mbon yi nga xam ne moom moo am ci dëkk bi juróomeel mooy setal bakkan bi forcé ko yàlla wax na ci quraan wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa anil hawa fa inna al jannata képp koo xam ne dangaa ragal dajeeg yàlla ba nga jàpp sa bakkan bi setal ko ba mu set borom bi nee na yow aljanna mooy sa kër sànq waxoon nañ yàlla nee na qad aflaha man zakkaha bakkan foog ñu jàpp ko sang ko raxas ko ba mu set li koy defar nag moom mooy diine dawru sabab fil fil islah mbokk yi bu ñëwee ci tomb boobu rôlu ndaw yi pour defar loolu danañ ko tënk ci ay tomb moom tamit mooy al ihtimaamu bi jili sabab mooy foog ñu yittewoo génération ndaw yi li tàmbalee 15 ans ba 20 40 ans foog ñu yittewoo leen di leen former moom la ñuy wax al i'daadu shabab al islam wa i'daadu sabab islam ak ni muy waajale ndaw yi préparer leen lan moo tax yàlla même yonent yi bu leen di yónni du yónni yonent bu màgget parce que dañuy préparer boroom xam-xam yi dañu ne wala ñu ne dañoo na ci asar ñu ne raafiq tiflaka sabaan wa allimhu sabaan wa laayibhu sabaan boo amee doom jàngal ko bu mu amee sept ans nga formé ko bu mu amee sept ans nga entraîné ko bu mu amee sept ans sept fois trois vingt et un ans xale bi mën lépp bu ilimaan tardé ci jàkka ji mu jiite bu ñuy takk sëy mu mën ko bu ñuy tudd mu mën ko bu ñuy sang néew mu mën ko bu ñuy jullee néew mu mën ko loolu moo tax yonent bi saa salaam daan jël xale bu am 15 ans di ko jiital xale ñoom Usaama bi ibnu Zayd parce que dañ leen formé xoola Abdullah ibnu Abbas Omar da daan toog ak sahaaba yi xëcc Abdullah ibnu Abbas ne ko kaay toog sahaaba yi mag yi mer ah lu tax xale bu ndaw bi di fi toog chaque jour rek Omar naan ko kaay mu nekk ci biiri baayam benn bis Omar bugg leen wax ne kii lu tax ma koy wax na fi toog mu woo sahaaba yi ba ñëpp ñëw mu ne damaa bëgg ku ma tafsiral suratu nasrullah ngeen wax ma lu tax mu ñëw ñu ne waaw suratu nasrullah day mooy yàlla dafa ne bu fekkente ne ndimbal yàlla ñëw na ba màkka ubbi di nga gis nit ñi dugg ci diine yàlla mbooloo mbooloo su boobaa yow yonent bi da nga sàbbaal sant sa boroom ku nekk firi ko mu ne Abdullah ibnu Abbas loo xam ci saar bi mu ne ko lu ci njëkk mooy dafa wàcc pour tàgge yonent bi mu tàmbali ñëpp di xoolante mu wax ci loo xam ne ñoom xamuñu ko Omar ne leen lii moo tax ma ne ko na ñëw toog fii ci mag ñi ah parce que dañ ko waajal parce que dañ ko jàngal jàngeen ñu ne Ousseynou ak Assane gis nañ paa bu munul jàpp nan lañ def ñoom ñaar ñu ne ko ñun ñaar dañoo werante nan la ñuy jàppee munuñu dañoo bëgg nga seetaan ñu ku dàq a jàpp kenn jàpp ba pare jox keneen mu jàpp ba pare ñu ne paa bi loo ci xam mu ne man ngeen di jàngal maa mënut gis ngeen parce que dañ leen formé kon ndaw yi foog ñu formé leen mais problème bi tey mooy place yu mel nii dafa néew ba nga xam ne kenn mënul formé ndaw yi ndaw yi fan lañ leen di formé ci stade yi ci soirée yi boîte de nuit yi télé yi da nga xoolal xoolal sunu ndaw yi wax naa ko sànq xoolal sunu seen tubé yi fi ñu koy takk suñ demee ba ndawu julit di lonk tubéem lu def lu kenn xamul wala mu bënn noppam wala mu baram bo bo kéem ah suñ demee ba ndaw bu jigéen di bënn jumba xam bënn weenam bënn bënn bënn bënn fu nekk ci yaram bi di génn lu tax parce que amuñu formation kon foog mbokk yi su fekkee dañu bëgg a defar foog ñu defar ndaw yi loolu nag min xilaali ijaadi bi badail il faut ñu utal leen ay changement place yi nga xam ne dañ ko doon def mu lu bon ñu def fa lu baax fépp fu ndaw doon dem di fa gis lu bon ñu def fa lu baax wala lu baax daw taxaw fa ba su ñëwee du du fa gis lu bon bëri na tey ku dugg ci lu bon lan moo tax nga dugg ci da nga gisul lu baax loo def mais boo gisee lu baax nga def ko am na benn fan ngeen doon dégg ci rajo wala ngeen doon seetaan télé wala ñu ko doon paasante ci portable yi ñetti xale yu jigéen yu nekkoon Grand Yoff def si meeku yaramu neen di fo seen biir xale yu jigéen yooyu kan moo leen dugal ci loolu ñu doon def benn xale bu jigéen bi mag ki ci mag moo mbon bon ba pare ñëw di yàq yeneen xale yi gis nga ñu pare di ko paasante seen portable yi waa affaire bi tas fan la mujj justice kon lu bon loolu suñ ko fi jëlee dañuy fexe ba def lu baax fexe au lieu ñuy paasante léegi xale bu jigéen bu def yaramu neen ñu fexe bay paasante son islamique yi ah tey boo duggee ci internet bi di nga fa fekk yu baax yoo xam ne kenn xamul nu mu toll li ma doon wax sànq mais ñun ñi nga xam ne dañuy def lu baax dañoo dañoo tayal du jaral kenn moo tax yéen sant leen yàlla bu ngeen mënee toog fi guddi gi ñëw ci sedd bi bàyyi seen lépp ñëw fii bu leen yaakaar ne seen njàmbaar la de du seen jàmbaar de yàlla moo leen bëgg majtama qawmin fi baytin min buyutillah yadrusuna kitab allah wa yatadarasuna minhu illa nazalat alayhim rahma bi ngeen fi toogee ba léegi yërmande yàlla mu ngi wàcc seen kaw yàlla moo leen baaxee bëgg leen dugal ci yërmande yemul ci loolu de waaye malaaka yi ñu ngi yor seen i këyit yéen ñëpp bind nañ seen tur ba pare yàlla xam nañu fi nekk de mais du tere dañuy dem ne ko diwoon fa woon kenn par kenn te yàlla xam nañu fi nekk loolu fan nga mën a amee lii tey ci néegu yàlla rek kon nañu fexe yu baax yu mel nii di bëri au lieu ñu koy yemale benn guddi ba année bu nekk déedéet semaine bu nekk lii dafa mën a am dafa war a am waaye buñ ko yemale ci loolu rek kuy ñëw bis beneen semaine buñ ko jàppaatee ci biir semaine bi kuy ñëw indaaleel kenn ku ñëwul woon tey bëri na ko fi ñëw bàyyi sa frère mu solo ne la grand projet nga ne ko mosquée mu ne non man xoolal grand eh xoolal suba booy ñëw nag jàpp ci loxo bi dégg nga fexeel ba nga convaincre ko ne ko mu ñëw dafa am benn waay bu doon liggéey ci benn dëkk jullit moom tubaab la fi muy liggéey liggéey na fa ñaar fukki at chaque jour këram liggéey kaayam këram liggéey kaayam mais fi muy li fi muy fi muy jàdde di dem ci liggéey kaayam dañ faa def benn tableau ku bëgg a xam yàlla ñëwal fii waa ji benn jour rek musuloon lire tableau bi ndax ni mu daan yàkkamtee benn bis dafa siggi rek gis affaire bi mu ne mais lii mooy lan mu liggéey wàcc rek jubal foofu fëgg bunt bi benn waay ñëw ubbi mu ne ko mais tableau bi liñ ci bind nag mu ne ko waaw fii fii pour loolu la ku bëgg a xam yàlla rek nekk dëgg dëgg jullit fii ngay ñëw waaj na ko man waaw ma xool lu luñ fi waxe lu fi xew mu ne ko non léegi imaam bi nekk fi suba nga ñëw même heure ñu wax ko imaam bi imaam bi préparé ñëw xaar ko mu ñëw imaam bi jël ay document jox ko mu liir waxul ak moom wax ju bari sax mu jël ay téere islamique rek jox ko waaye daa dem liir rek ci suba si mu gaadu téere yi ñëw daa di sone gaa yi ubbi mu ne damaa soxla mbooloo mi ñi ñi keree yi daa soxla ñu indil ko juróomi nit mu ne yéen ñi ñëpp bu ngeen dee da ngeen dem safara gaa yi ne ko lu tax mu ne ngeen yor lu mel nii tëj ko fii man 10 ans maa ngi fi xaw ma lii fukki at maa ngi ci dëkk bi ngeen yor li tëj ko fii naan na na na ko fi nit ñi fekk si yéen yéen a war a fekk ji nit ñi gis ngeen yéen yéen a war a fekki nit ñi mais waru leen toog nit ñi di leen fekki yonte bi dafa doon fekki wala dañ koo fekki si dafa takk fas yi yónnee ba ci buu yi Kisra Kaysar Muqawqis ay buur yonent bu doon dund tey wallahi dina bind Obama lettre ne ko aslim taslim wala ñun yonent dafa bind ay buur lettre fu ne la tas diine bi fu ne dem na Makka dem Médine barki dee moom bi darse bi ma doon defal gars yi man leen Ousmane Ibn Affan ñëw na ba Afrique doomu yonent bu jigéen Roqaya ñëw na Afrique wala Ousmane demul Éthiopie première gàddaay deuxième gàddaay dem na Ousmane ñëw na ba ba Afrique ngir tas diine yàlla ñun kon il faut ñu def formation formé formé ndaw yi mbokk yi ñaareel mooy tanfiz anshita saqafiya ñu tas exécuter ay programme yoo xam ne programme culture islam la ñu xam ne l'islam aussi du question rek nga ñëw jàngal Quran julli après ray sikkim deedeelu non l'islam am na culture am nay way yu dagan am na façon fecc bu dagan am na animation culturelle yu dagan islam bu la xañee li am na lum la indil am na ci ñoo xam ne jàpp nañ ne l'islam waroo reetaan subhanallah mbokk ragalal yàlla waroo ree waaw wala waroo lekk yàpp wala waroo tëdd ci mat la bu nooyi ah wala waroo yor benn 4-4 8-8 mais ñu ne mbokk ragalal yàlla am na benn menuisier bu ay mbokk fekkoon muy liggéey menuisier mu daaj waaye ñu ne ko wallahi bant yaa ngi lay rëbb bant yaa ngi lay rëbb mbokk ragalal yàlla billahi waaw mu nga kon nag ixwaan yi il faut ñu tas culture islam ak ay mbir yoo xam ne lis la sunu diine nangu na ko ñu jox ko ndaw yi parce que tey loolu soo gisee mbon gi bari yépp mooy gars yi ñoo leen joxul yooyu nga xam ne ci lislaam lislaam daganal na ko lépp buntu yëpp lañ tëj di nga gis sax kenn ko ëppal koo xam ne day fekk jigéen ñi ci ceet ñiy way ñu ne ah ñan ñooy way fii ñu ne mbokk yi ñu ne laa ilaha illallah te loolu dagan na ci ceet di dagan na ci feet il faut ñu bàyyi nit ñi li leen yàlla jox ñu jël ko am na lu leen yàlla may loolu yàlla may leen loolu yonent bi jàngal leen boroom xam-xam yi wax ko leeral ko bañ ne dagan na nañ bàyyi nit ñi ñu def ko ñu jël ko bu kenn tëj diine bi tëj nit ñi kaso loolu lu muy tekki mooy ñu dem di wëri yeneen yoo xamante ne dafa araam di ko jël fekk loolu baaxul bokk na ci loolu encore ñu dimbalante tas kasetu lislaam yi tas téere yi bu fekkee ay ay seede la ñu tas ko kenn ku nekk li nga ci mën loo mu tey waxtaan bi cheikh bi doon def sànq ñu def ko ay seede maye ko dugal ko ci biir kër yi def ko ay kaset ñi ko mën a yóbbu ci rajo yi ñu yóbbu ñi ko mën a yóbbu ci télé yi ñu yóbbu ñi ko mën a ñi ko mën a noonu la ñuy tasee mbirum diine te gis ngeen kaset yi ñuy enregistré di ko joxe wallahi alazim aka bëri ñu mu génn ci ci lu bon aka bëri ñu mu génn ci lu bon man xam naa ci dara chaque jour ma jokkoog nit mu ne ma wallahi alazim daaw ma julli fajar jàkk waaye waxtaanu nangam laa déglu ñëw boobu léegi biddanteetu wala daaw ma woor wala daaw ma julli ki ma leen di wax ni sànq waxtaan rek la déglu waxtaan waa ji góor jigéen la mais waxtaan la dégg bëgg cee génn mu jaral ko mu changé dëkk changé numéro portable parce que ba ko góor jigéen ñi jotati bu ñu xamati fu mu nekk mu jaral ko mu changé ville jóge ville dem beneen ville bu sori changé numéro portable am xam kooku mu ngi def effort mais lan fan la jëlee loolu dafa déglu waxtaan il faut ñu tas affaire yi xoolal xoolal gars yi def lu bon dañ koy tas ni rapidement ci seen i kii bët set lépp tas da ngay dégg sax ñuy wax ci rajo bi dañuy jaay kaset bi place sàngam di ko publicité mais bu fekkente ne ñun jóguñu pour tas lu baax du dem mu ngoog ñetteel mooy al istifada min al munasabat as sanawiya mooy dañuy profité gis nga xew-xew yu mel ni dañ ci profité ma ñun li mel nii dañ ko daan def géejawaay wallahi lii nii am nay mbokk yoo xam ne mun naa tudd seen tur ci lii laa leen formé woon ay ñoom Seydou Wan ñoom Jibril Guèye Pape Ibrahima Guèye tey ñoom ñoom ñu ngi Europe te ay ponkalu islamiste lañ kenn ki imam la léegi France mais ci programme yu ndaw yi lañ leen doon jàpp di leen yar di leen tegal ay film jour 31 wala 24 fexe ba kenn bu mu dem jàkk ju ëpp ji ñu fexe ba mu fees voilà léegi pro yu mel nii dañ ciy profité mais da ngay gis ku ne yéen lii nii ma ñëw fii am na ku ma ne bu ma sañoon doo dem ndax jour bu xaraam la am na benn mbokk bu ñëw fii ñëw fii ba yëg ko ne ma yow dégg naa da nga fay def waxtaan ma ne ko mais xanaa yow yëgoo bis biñ ko def ma ne ko yëg naa ko kay damaa xam ne dara nekk ci moo tax may dem li buñ toogee lépp ñu ne def xaraam sànq lan la ñu waxoon yow ne man raa minkum munkaran fal yughayyir taxyir bi nu muy amee mu ëllëg ñu bàyyi nit ñi dem soirée ñu ñu leen ci lislaam dafa am sabab bu tax dafa am sabab sabab bi mooy lan mooy téye nit ñi boo dem def lu bon même qawaidul usul dañuy jàngale iza tazahama adadul mafasid ñu ne nartaki bi adna mina yu bon bu dajee yu bon même bu fekkee bis bi dafa bon te ñaar yu bon am ci lii nekk lu bon lee nekk lu bon toog ci jàkka yi dafa waxtaan ak dem baali déglu ji musique fanaa ni ci xale jigéen ñi bu tane waaw te naka la ñuy gisee lu mel ni ñu ne dafa bon mooy capacité intellectuelle bi moo des parce que lu ñu liir dafa tuuti dafa am ñoo xamante ne ba léegi ci jullit yi xamuñu ne dafa am ñu leen programme pour l'islam du tas te ay jullit lañ da ci jullit yi loolu mooy suñu problème jullit yoo xam dañ leen former uniquement pour diine kenn du ko liggéeyal loo yëkkati ñu ne xaraam xaraam ragalal yàlla loo yëkkati ñu ne la ragalal yàlla fekk programme la loolu nag bu leerul suñu bopp duñ dem mu ngoog waaw ñu profité ci xew-xew yow di xew ñu def ci ay étude xew-xew yooyu lu mel ne tabaski korite ay yeneen yi nga xam ne day xew nii profité ci pour indi nit ñi voilà ay gàmmoog ay màggal ak dañ ci profité parce que nit ñi dañuy def dañuy dem di ci profité di ci def ay débat ay waxtaanu islam yoo xamante ne dañuy changer nit ñi ba ñu xam ne lii nii lañ ko war a defee nii lañ ko war a waxee nii lañ fa war a nekkee mu ngoog te tey ñooñu ku demoon di leen ci dimbali dañ lay sant parce que sëriñ bi c'est sûr que bëggul ko fa mooy yàlla li ma waa ji doon wax sànq mu ne dafa am benn oustaz bu doon waxtaan ci benn télé mu ne waa ji xëy dem gàmmu te julliwul fajar dem nekk ca gàmm ga nekk bàyyi faalu gàmm gi di liggéey di liggéey di liggéey ba gàmm gi jeex fekk julliwul waxtu yëpp mu ne kooku la mu bàyyi ak la mu def ban moo ëpp importance lan mooy farata ci ñaar yooyu mais imagine tey ñaata nit ñooy xëy di dem ci suñu xew-xew yi te duñ julli buñ demee duñ julli fii duñ julli di sonn ci loo xamante ne yow julli gi moo war a ëpp importance kon yu mel noonu lan war a yee nit ñi di leen jàngal ba ñu xam aw al awlawiyaat lan moo gën a yey tey am na am na programme yu xew ci Sénégal wallahi buñ ko leeraloon nit ñi ba mu leer kon jàmm rek mooy am kon kenn dootul sonn sax di wax fii yéen yéen yéen loolu def cirque yéen da ngeen def bidaa parce que dañuy xam nit ñi ba même buñ fa demee am na lu baax luñ fay def mais tey dañuy bàyyi nit ñi nit ñi dugg ci xërëm yi di sujootal bàmmeel yi di di di di di xew-xew yu bëri nag nga gis ku dem ci bàmmeel ñii di tibb ci suuf yi ñii di tibb ci xeer yi ñii di laa ilaha illallah te loolu baaxul loolu cirque la ku ci dee da ngay dem safara nan leeralal sénégalais yi xeer amul njëriñ barki démb damay waxtaan ak ay mbokk ñu ngi dëkk géro ñu ne dañoo xëy rek ñu sàcc li doon aar dëkk bi xeer bi doon aar dëkk bi ñu sàcc ko waaw paa yi jël ay jaasi ñu ne ibaadu yi la ñoom rek ñoo fi bañ xeer bi kon ñoom la ñu dem wooy ibaadu yi réunion paa yi teg seen i yat ana xeer bi yaa ngi ne ñun gisuñu ko wóor na yàlla xeer bi ngeen koy dul da ngeen di dee ngeen xeer bi gisuñu ko boobaak léegi mën na ay at xeer ba feeñul kenn deewul te waa dëkk baa ngi fa kon ngay xam ne ne xeer bi aarul dëkk bi fal yaabudu rabba haazal mais du du xeer bi même makka yàlla waxul nañ jaamu kaaba gi dafa ne nañ jaamu borom kaaba gi mu ne ma nag am na beneen tooxi doona bu fa xew dafa am benn sëriñ bu fa samp benn xeer nit ñi dañoo raay xeer bi tudde ko xeeru sëriñ bi ma ne ko boo leen ki jëloon bële mu jëlaat bii rek mu ne ma ñun kay xamuñu sax bu njëkk ba ko jëloon kenn xamul bu njëkk ba ko jël xam naa benn waaye fa jaar rek jaamu ci yàlla waaw daan ne ko li Omar waxoon xeer bi xajaratul aswad ñëw ba tim xajaratul aswad ne ko alimtu annaka xajar laa tadurru wala tanfa law lam ara rasul sallallahu alayhi wa sallam yaqbiluka ma qabaltuka qat xam naa ne xeer kese nga doo jëriñ doo lar wallahi bu ma gisul woon yonent bi di la foon du ma la foon daal di foon xeer bi dem yoonam xeer kese la xeer lu muy def xoola xeer ñu ne xeer buy aar dëkk ñu sàcc xeer bi te dëkk baa ngi fa nit ñaa ngi fa nit ñi foofu il faut nag loolu ñun ñoo ci jub waaw mbokk yi li ci des bareetul mooy nañu fexe ñu jàppalante pour xeex mbon pour fexe defar dëkk bi yàlla nee na wala tufsidu fil ard baada islaahiha bu leen yàq suuf si ginnaaw bu ko yàlla defaree yàlla buggul yàq borom bi wax na ci quran ne ñi nga xam ne inna allazina yuhibbuna an tasi al fahisha fi allazina amanu ñi nga xam ne dañoo bëgg lu bon tasaaroo ci way gëm yàlla yi borom bi nee na dinaa leen buggal xoolal dañoo bëgg rek ñi nga xam ne dañoo yor programme pour ngoon tas yàlla ne dinaa leen buggal buggal mu metti kon ki ko def foo jëm ki bëgg rek defagul yàlla ne dinaa ko mbugal borom bi wax na ci Qur'an ne yàlla bëggul mbon lu feeñ ak lu nëbb yàlla bëggu ci dara comme lu bon a ngi noonu nag dafa laaj am force bu taxaw ñooñu ñu naan ndaw pour fexe jële fi lu bon loolu ñu préparer ay barnaamij ruuxiya waaye jaaziba tëral ay programme yu mel nii yoo xam ne day dundal ruu waaye yuy xëccaate pas yuy dàqaate léeg-léeg ma ni mbokk yi naafila koor baax na trop dem ci jàkka naafila koor sunna la waaye dem jàng hizib nit ñi taxaw taxaw ba ki nga xam ne moom munta taxaw ci wal fajiri nga bu ko taxawloo ñaari hizib suñ paree fekk dañ ko indi woon ne ko tey na nga ñëw sunu naafila bi su ñëwee dinaa la seex bi demal jërëjëf yéen yéen yéen yéen yéen julliwu leen kese kese kese kese kon nañu def ndànk gis nga ñu fexe bu waa ji ñëwee premier jour deuxième na soññ ki ko ne woon nañ dem loolu lañ war a def tey mbokk bi bu indi woon benn nit ci programme fekk programme bi une semaine la indi nag kenn tey suba kooku dafa war a sangu teel ñoo ne ko ndox pare nga pare nga ñu dem waxal man damay dem de gis nga noonu la ñu war a def mais indi nit ci benn programme boo xamante ne waa ji ëllëg bu ñu ko nee danaa ni mosoon nañoo organiser mooy li ma leen di wax ne 31 décembre dañ daan def gerte caaf ak café Touba pour minimiser bis bi parce que li ñu waroon mooy daawa ñu ñëw am na koo xam ne nag dañ ko ne yii gars yi nag lañ rey mu sangu ba set solu ñëw nekk ci kanam toog billaahi ba programme bi jeex ñu ñibbi fajar mu ne waaw ana yàpp bi gars yi ne ko yàpp ah wax dëgg yàlla gerte jàll bu ma ko kenn waxati xam nga kooku dañ ko waroon wax dëgg rek na ko waa ji wax dëgg bul bëgg mu ñëw ba nga ko ne yàpp booy booy gars yi benn kii lañu rey benn benn béy bu ndaw fii béy bu ndaw amul fi dañuy def suñu programme islam ngir yàlla ñëwal nga déglu jeex na bu ñëwee nga xam ne waaye xam nga kooku ñu ne yàpp suba du ñëw lu tax du ñëw suba gisul yàpp te toog na une semaine di xulóog loolu une semaine toog na di ko xuloo xuloo na ko ba egg ci man tukulóor la loolu mooy wax ji nag tukulóor la di xuloo yàpp parce que da yàpp lañ ko waxoon moom tamit nag waaye loolu bu ko kenn def nañu fexe ba nit ki buy ñëw ñu wax ko dëgg won ko dëgg bi su ko defee mbokk yi lii moo doon waxtaan wi li ci jub mu ngi bàyyi ko ci borom bi subhaanahu wa taala li ci dëng ci ñun la ñu ngi koy jéggalu suñu borom dinañ ko jéggalu asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu